ngir top sen chaîne Jazboul Mourid demal Google tapez Jazboul Mourid ben ben émission mu yóbbu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification sa ñu dugalee suñu vidéo sen chaîne Jazboul Mourid di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mourid mi ngi ci war wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall. nee na taal boo gis muy tàkk ci yoon wi roof naa ca mat waaw ki ma ko wax Cheikh Ibrahima ko yar te njëriñ la ma ko nettalee sama seex nee na taal boo gis muy tàkk ci yoon wi roof naa ca mat Cheikh Ibrahima Fall nee na su ma rocce woon sama mat taal yi bëri booy. léeg-léeg nga gis kenn boof benn roq ñu naan taalib bi diw sàngam la waaye jëfkat la te gaa yi xamul li xew waaye soo ko dàqee woon mu ñibbi kër Cheikh Ibra nagu ndénkaan la fa sama am Cheikh nee na li ma yeew ci nagi ndénkaan ci gétti gaa yi su ma ko rocc su ma ko su ma ko rocci woon gétti yi raaf Cheikh Ibra Fall nee na sama sama yëkk yaa ngi ci gétti gaay yi bëngeelu Cheikh Ibra Fall la ko wax yéen nag cant lañ leen ameel ndax woo gii ngeen ñu fi woo ngir seexib Ibra jàpp ngeen ne yéen a nu war a sant waaye noonu jàpp nañ ne noo leen war a sant ndax samaam seex moo nu waxoon ca njëriñ mag ñee ma wax ne samaam seex nee ku amul lu dul lenn képp denc ko ci barab boo fa déggee yuuxu kenn war la fa jiitu te amuñu ku du Seex Ibra Fall looloo nu fi indi Seex Ibra Fall nag xawuma ko ba di ko xamle lu leer laay wax toogu fa yit fii ngir di waar kenn ndax Cheikh Ibra nee na mën li muy baax baax ku la gis waaroo ko gën waaye nag lu ma leen fi nettali ci lu Cheikh Ibra Fall wax dama naan leen diw nee na ma Cheikh ra nee na ko mhm. lépp lu ma fi wax rek ku Cheikh Ibra Fall yar moo ma ko wax mbaa ku Cheikh Ibra yar baayam moom du sori déedéet du ma jox jàllante muy sori dama naan la diw nee na ma Cheikh Ibra nee na ko wala diw nee na ma bàyyam nee na ma Cheikh Ibra Fall nee na ko muy loo xam ne ma kenn mënu koo waxtaane ci yoonu murit te tuddoo Cheikh Ibra tur wi ngeen am yàlla nañ ko xam ndax dafay mel ne kon man yëge naa ne seen pas-pas ak seenu bëgg ci Cheikh Ibra Fall man lu ma gëm la man waaw ba ma leen fekk ngeen tudd xidma man ca laa àtte woo ndax ndax dund Cheikh Ibra yëg Cheikh Ibra Fall la tax ngeen dàkk xidma wala ñu dàkkal leen ko lu mën a xew rek daal mooy am ngeen dimbal yéen ndax liggéey moom Cheikh Ibra ko fi indi waaw maam Cheikh ma ne ku man a enregistré nga enregistré ku mën a bind nga bind li may wax nëbb moo ko ko yoroy nopp te luma la wax fu wër la koy tek te ku Cheikh rafal yar moo ma koy nettali mbaa ku Cheikh rafal yar bayam Cheikh Ibra fekkul Mbàkke kadior lu dara ju am da mag ñema wax lolu Cheikh rafal lim fekk Mbàkke kadior ba mi moy dara ju am dara daaray jang la fa fekk de waye dara ju amu da Cheikh Ibra ko fi indi dara ju amu da moy lan moy xitma Mhm. te sëñ Moussa Ka junj nañu ko te gars yi bàyyiwuñ ci xel yaa njëkk a jébbale sa xol ndax fekkoon nga gars yi xor-xoral luy loolu nañ ko càmbar na ña taqal ak ñalay setal sax yaa xal ngir mi ñuy doxe kon Cheikh Ibra am na lu mu fekke woon daara ja waaye am na lu mu indi ci daara ji lam indi ca daara ja nag moom lañ leen tudde yéen te mooy liggéey Cheikh Modou Fatma nee na keroog bi ñu dencee Saliou Fall di rakki mam Cheikh Ibrahima Fall bam mu wàccee liggéey ñu denc ko kérok daaru khafor lañ ko jëlé yanu ko jëm seeg mom Touba bay nar Fall moma wax ci làmmiñam nama kérok auto bari wul dañoo yanu sëñ Saliou Fall mu dom man mi di wax ak yow bokku na ci ña yanu Saliou Fall bu mi dugg Touba. moo na ma keroog biñ egsee sëñ yaaram mbayee ko jullee sëñ da Abdourahman loo ko ko sant moo fekk jotaay ba moo ko teewee nee na bañ dencee sëñ Saliou Fall ba noppi Cheikh Modou nee na am na lu ma Cheikh Rafal ma sa nettali na ma nag ku mel ne sa bàyyi sëñ daam Abdourahman loo xam na ca dara neena sama xel na yar comme cheikh bi rëcc na ma sëñ daam rëcc ma ma bañ manam seigne saliou fall rëcc ma ma bañ seigne dam rëcc ma sama xel dem ci lama sama bay, sama bay cheikh ibra fall waxon nee ma ma laaj ko seigne dam mu du fi xaj waye so fi jugge jaar sil ndaam cheikh mudu nee seigne dam ma jitu bama ko fekke ci ñowan la ko fekk mu tok mu jup su ko bëri jup ba nam ma daan def bu cheikh ibra masaan yónni fi mom nama cheikh yex nga lam ma njëkk a wax mooy cey sa baay ba Cheikh Rafal nee na xel ma dem ca samam seex mu ne moo ko gore daan na ma mbaa xam nga ne ni mu jaaxale waa addina ni mu jaaxale waa àllaaxira ko raw teg na ca leneen nag fàttewuma ko nag waaye du dem ci rajo moom mhm. ci waxtaan yi biir néegi la bokk teg na ca leneen fàttewuma ko nee na ba loolu amee mu ne ma ndax sa bàyyi Cheikh Rafal mas na laa nettali nam tase woon suñu daaray kaw daara ja keroog ba mu jébbaloo ca Mbàkke Kajoor Cheikh Modou Fatma nee ma ne ko déedéet mu ne ma toogal ma laayale ko biir daan na ma Cheikh Ibra Fall ba mu jébbaloo daa féetewoo liggéey sëñ daa may wax de te moom nee na bi Cheikh rey ñëw Mbàkke Kajoor fa la ko fekk kon xam na ca dara nee na seex Ibra Fall daa féetewoo liggéey nee na ku ko gis Mbàkke Kajoor wenn waxtu nga ko gis mu waxtu fajar sëñ daam nee na Cheikh Ibra Fall lu mu yëndoo liggéey ci àll ba day bàyyi ba gudd jot mu ko di ko indi sëñ daam nee na Cheikh Ibra bu ko roñee ba mat mu jël goj bi ak baag bi root ndaay ci ëtt ba mu fees nee na su noppee mu tëral goj bi de bale ëtt bi sëñ daam nee na waxtu fajar di fenk fa ngay gis a Cheikh Ibra boo ko fa gisaatee suba la ci waxtu woowu xanaa kon mooy yendoo liggéey fanaane root gaayay nelaw ba naan xuréet balay ganaar naan kur kuréet moo fa xewal daawul doxi sëñ Moussa Kaanu ko wax nee na am bis nag Cheikh Abdourahmane ndaam nee na ku bax ki yor ab jakam ci waxtu fajar moy banti mag ñi yor neena ñew ba tollu suñ bunt yi nee daal di koy da na ndax yewu ngeen ñu na waw mu na juk leen tal jang jot na neena Cheikh rafal yano sayu mat ci allu ba dajé señ bi duñu soñu ci mjang neena ci lamu ñu Cheikh rafal la degg mu nan señ bi bayil doomu jaamari li nga leen di wax ta wax li la sa wax ci jariñ ta nga li nga leen di wax boba seen mam nga yett buntu mhm. nee na sëñ bi wuyu ko ca ëllëg sa Cheikh Ibra Fall tombé waat nee na mu naan ko mbàkke lii de waxoon naa la ko biig ma ne baal doom bu jàmbur li nga leen di wax te wax li la sa borom wax ñu jëriñ te bay bàyyi li nga wax nee na sëriñ bi wuyu ko ñetteelu yoon ba nag ca sëñ bi ne wul bit jàkkaarloog moom nee na waax si ko nee bi mu dikkee setale ndox gi yor la sotti seen diggante maam Cheikh boobu sëñ bi romb ko jàll sëñ Abdourahmane Lo nee na ca fan yooyee la dekkar ba wàcc sëriñ bi wax ne ko fi jàng indi woon seetul ku am jotam waaye leneen a ngi fi xam ngeen leneen loolu mooy lan moom ni ngeen tudd maa la wax loolu kon jàpp ngeen ci dara de mhm. kon leneen loole mooy li fi Cheikh Ibra Fall indi moo tax mag nee na ma fa njaareem samaam Cheikh a toog fii ne yoon wi su doon ngoro la bu tasee ma nañu delloo alal ji Cheikh Ibra ko wax bu doon am ngoro ngoro gu tas la Seera Faal nee na can ga can nga man lañ koy delloo maa njëkk a bàyyi sama ndey Cheikh Ibra wax nee na bàyyi sama bàyyi bàyyi yàlla ma sàkk jàpp sëñ Bamba ah doom sëñ Bamba gor la daf maa yeewi mara la ma yàlla lu ma neex di neex yàlla Seera Faal la ko wax sëñ Tuubaa ne Ibra Faal daa bàyyi ay bokkam bàyyi boppam bàyyi na sax boromam ngir man waaye defaral naa ko boppam mara naa ko boromam boole naa ko ki bokkam xanaa xamoo ne yegg ci yàlla sëñ Tuubaa ci gën a gaaw Cheikh Ibra dégg maa la wax loolu kam waxon nako bo demé da ngay bayyi yalla bo bëggé dem cheikh mënu bëreut nako bayyi yalla commencé tit <laughs> dom da nga jappun yalla mënako ko foko japp waye muy sigge ko xol bam yag mu ne ki nga xamné bi ko jappé xamo foko téy dom soko bayé noko yégué dom né len ko bu bëggé ag ci yalla na bayyi yalla bayyi yonentam bayyi ay bokkam bayyi bopam ta japp señ bamba waye su jappé señ bamba señ bamba japp ko bopam dana ko bolé yalla bam xam fi koy téy mu bolé ko yonentam bam yor ak léra mu dafar ko bam bam jariñ ay bokkam Cheikh Ibra day jàngale te gars yi ko nee na àgg ci yàlla sëñ Tuubaa ci gën a gaaw Cheikh Rafa la ko wax waaye damay jug rek jàll dee mënta nekk faaw nga jaar ci ku baax ki mbaa doo dem sëñ tubaa kenn mënu ko fay teggi di wuti yàlla amul Cheikh Ibra xam loolu mhm. moo tax nag maam seex daal di nag saxoo loola mooy lan mooy liggéey ca Mbàkke Kajoor waaye lam fa indi nag xamuñu ko de ma wax leen ne leen Cheikh Ibra Fall lam indi xamuñu ko ndax jàng lan xamoon ba sëriñ bi waxee loolee am nañu ne su fekkee ne liggéey la dañuy dem liggéey li suñuy wéju waaye ñun jàng nu fi indi kon daara ja tasoon na am na ñu dem am na ñu demoon waaw kon xamuñu ko kon Cheikh Ibra yàgg naa indi luñ xamul xamuñu ko du yefi du du bañ gis nga yedd yërëma ko gën cheikh ibrahim dañ ko xamul waw waye mo waxon dañ may yek de suma xam cheikh ibrahim ko wax yedd yërëma ko gën dañ may yek waye kenn duma xam mam cheikh nee ne lu ñuy yëgle bu ñu la ko yegul doo ko yek cheikh ibrahim fall ya, gis nga man nga bax lool man nga sax sax sant sant wu mag man nga don jangale ko alquran bu la nexe nga wacc fukki yoon ak juróom ñet fuñ la fek nga tiimub kamil way yalla xam na ne sàmbar man na taw man na la bañ taw feexale Cheikh Ibra lolou du ci dara Cheikh Ibra du ay wirdu yooyu wirdu pour gem ko wala nga xam ko du ay téré yoy jang pour du ko bëgg du yooyu Cheikh Ibra dimbalal sa borom la yàlla ciy dimbalib jam ma wax len ko fi mu leer nañ yedd yërëma ko gën kenn ci mag wax ne seigne abdou samad mu seigne soye mo ko netali neena seigne mot lamine gay mu mag mu wax ne cheikh rafal neew ci tiaxan fa ko seigne touba lak la ken xamul way neew ci tiaxan mhm. kon mam cheikh lolu la tambale liggey mbacke kedior di jaayante nak bam joxe bopam takat dana len wax len cheikh ibra delu watal ci demb ñu xamne mom moy kan asgor la ab julit la Cheikh ibrahim bo wara xam lepp xam nako lata mu ñew fi serigne bi waaw ñu bari nak dañu réere lolu waye buñu japp ne jahil la won dedet waye la waral bimu mu ci serigne bi feeñulu dara dana ko wax ndax njabi moy kër bayam wàq moy kër nday bayam njare moy kër ndayam ahmadou rokhay njabi la dekk roqee mi jur ahmadu roqee muy ndey baayam wàq la dëkk Seynabou Njaay mii ndeyam njare la dëkk maam ahmadu fa roqee maam amar fa la ko jur ak maam roqee Njaay maam bu Njaay sëriñ Balla fa géey Njaay ko jur ak maam soxna Balla Njaay Cheikh Ibrahima njare njare la doomi soxna la te ca démb yi ca ña waro moome la bokk xam ngeen ne yéen dammeel moom ci la jor la sant jo waaye Fall la daan sant gars xam nañ loolu ah Fall Lat Joor ci ndeyam la ko jëlee dammel maam yi Cheikh Ibra Fall képp ko daan doon ci Sénégal waaye gisutoon loolu déedéet Cheikh Ibra deret rek yooyu ñëwu ko moom ndax man xam naa lu ma wóor ci ne sëñ Cheikh Mbay Yaaram moo ma ko nettali sëñ Yaaram dox na ci marché njëriñ bi dajeeg ku wax ne Ibra Fall du góor du jullit mhm. Ibra Fall du góor du jullit sëñ Yaaram duma ko fa duma yi metti bi mu delsee fi Cheikh Ibra mu ne ko Yaaram lu xew sa kanam daa soppi ku ne doom mu ko damaa dajeeg ku wax lu doy waar sa jëmm ko lu mu wax mu ne ko def na doo góor doo mu ne ko yaaram nga def ko nan mu ne ko duma ko mu ne ko tooñ nga ko de wax na dëgg ba bëri nga duma ko sama ngor jox naa ko sëñ bamba sama jullit jox naa ko ñaari mo doonuma ci dara cheikh ibrahim ngoog lu ko di waxal lu di sëñ bamba ak sëñ bamba yaa ngi sosal ni wutoon ci yooyu cheikh bi xëccewul dara lépp la baye gaa jàpp ci sëriñ bi waaye nag gis naa fu sëñ bi waxee ne xawma gën kër waaye sama kër lu fa liggéey am ci wàllam xanaa xamoo ne compte Cheikh Ibra gën a bëri lu muy xëy di encaissé ci yeneen compte yi ci des ndax ku jébbalu ci yoon wi Cheikh Ibra nee na daañ ma fekk fi ma nekk na ma diw doomu diw ak diw jox na boppam ci yoonu murit nangam la jëfal sëriñam nangam nga ca am fu waaye mën a jébbaloo ci yoon wi laa wax nag maam Cheikh nee daañ ma fekk fi ma nekk na ma diw doomu diw ak diw te bis ni ki tey tàbbi na ci yoonu murit nangam la jëfal sëriñam nangam nga ca am ba tey jii moom lañ mas gis ci àddina kuy joxe addiya ba tëdd sa bàmmeel di joxe addiya barabu Cheikh Ibra Fall bu yàggul dong 13 millions yu teg ñu ànd yóbbul ko seex Cheikh Mouhamadou taxaa fekk naa ko ba tey jii la mu ko waxoon danaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal Cheikh Ibra Fall nga koy def tey waaw kon lam jaayante woon a sëñ Tuubaa jëf na ko te loolu mooy liggéey ba muy xidma ba mu doon def ca Mbàkke Kajoor te booba it mbooloo la fa fekk waaye kenn ku ne bëggoon nga ko sopp ko seede ci moom te dinaa ci dikk ñi toppoon sëñ Tuubaa ñëpp laa la wax nag koo tudd ma wax la ne la nangam la wax Cheikh ibrahim Fall ba muridina ñëpp kenn ku ne jël nga sa xalima di ko tagg ak kañ te it ñi ci doon dund sariya dëgg dëgg dëgg laa la wax ñi nga xam ne da nga leen di gis sax gis ci ñoom ragal yàlla ak kennal sunu borom li wax Cheikh ibrahim Fall kenn wax ko ko sëñ bu su mi nga xam du faat waxtu jël na xalimaam ba tag ak kagn ak tag mam Cheikh ibrahim Fall Babu Mouridina motax gaay wara tey ndax ki dul faat waxtu bu deme bay tag ak kagn ku du julli waxtu amna na lu nit ñi xamul ne ci bir motax Cheikh ibrahim Fall ku jara tey la degg na seigne jaw paha na seigne mat jaw. bayam neena tok na seigne Touba tok ñaari Baye Fall juge ne dox rombu len seigne Touba ne ge seigne Mat jaw ne Mat jaw lo degg ñu wax ñu diko wax ci wa ke Cheikh ibrahim Fall yi sëñ mat jaw na sëñ tubaa dégguma kenn di leen wax dara sëñ tubaa ndaxam moos ki leen di nga ëllëg yaa du matum sawara sëñ Cerno Jaw ma ko wax te mooy xalifa sëñ Ahmadou Jaw Paxa sëñ Aline Badara ngi ni ba ma koy fekke na ko waaw man chaque fii Ibrahima Fall wa fi tariqatil kamal illam yatub li si jalal yu raxasaman xam nu kor loolu Cheikh Maolana nay ni moo ko ko wax kon kookooy Cheikh Ibra Fall mooy liggéey la ñu joxeñ tey moom liggéeykat la woon moom Cheikh Ibra loolu mat naa xam li liggéeykat la woon xanaa xamoo ne xidma ma Ibra ci jiitu ñëpp te moo ci mujj ñëpp itam waaw xamoon ngeen ne maam Cheikh bi mu mujjee ñaqal sëñ Bamba ak bi mu wàccee liggéey matu juróom-ñetti fan waaw Cheikh loolu war ngeen koo dégg sax xëy na su ma leen ko leeralee dana gën a leer ci seen nopp mais bi ñuy gas raay bi bàyyikoo njaarim jëm Touba loolu 1929 la laataa raay bi àgg Cheikh bi ñibbi na Touba mais maam Cheikh barkeel na ci liggéey ba góor gi Ibra Fall moo na ko wax fekk na loola ñetti nit ñu fekkee ngas ma ñoo ma ko nettali man ndax raay bi lu jafe la woon pour liggéey ko moo tax jëfi Cheikh Ibra Fall la ñu war di delloo siwaat ba nit ñi xam ne yoon wi royu royukaay bi mooy Babul Mouridina loolu buñ ko wax muy dem nii rek dañ koo war a tax dañ cee war a def taxaw seetlu wala ñu teg ko ci taabal ji jàngat ko Cheikh Ibra fi mu toll mooy jàngat ko ba pare jàngale ko ndax nit ñi dañoo waru ci moom Cheikh Ibra mii ñu ñuy woon ak Cheikh Ibra mañ xamoon dem bokkul mhm, waaw Cheikh Ibra mii ñu ñuy wax nii ñuy waxtaan wax nii ci gaay ak Cheikh Ibra man xamoon bokkul Cheikh Ibra tey waxtaanee guñ ko ndax ku la wax ci moom folklore bi rek lay indi teg ak ndof gi gaay di woné té cheikh ibrahim nit la won mom maa la wax loolu danaa la wax fi ma tek la wax cheikh ibrahim lam daan sol nga xamné ne ba jamono tollu ba fi jamono tollu gaay solo solagun ko gëna ris wax la façon couleur yam daan sol wax la na la kuy bëgg couleur bu rafet da nga wat ci ñetti couleur ya am cheikh daan tanon diko sol wax la façon lam daan lek ci togg ba nga xamné ba ci auto yam daan war ñetti auto yam am Volkswagen commune car dotsu wax la marqué ba nga xamné ne cheikh gaay yëgguñ ci mom cheikh ibra leneen lañ ñuy won ci mom lu bokkut ak lam tekkon tankam buñ ko waxtane nga xam gaay gars guñ ko ba tay desna ndax liñ ñuy won muy ba ci sax ah, ba xam nga ne mag ñi cheikh ibra fall yar ñoo dakkonu durus xasida ku yalla bind ci kaw suuf wallahi asim gisuguma ci jamono ji ku mën a toog ci jotaay jàng junniy jalibatu maraaxib te bàyyi mor ñaay tombu del daana ko ndekki man danaa danaa len wax ba wax len lo xamne musulen ko deg ci kaw suuf dama ne ñi cheikh ibra fall yar bàyyi tomb moo daan xëy jàng junni jalibatu maraxit ci ben jotay kenn ci gay yi tok kenn munu ko ci te Mor Ndiaye tombu del daan ko def te Seera Faal lako yar gëra jëf motax dañoo woru ci mom Cheikh Ibra Fall Cheikh sa mam nit ñi xamuñu ko dañoo woru ci mom da am dañoo wara waxtane waxtane waxtanal ñu Cheikh ibrahim Fall kan te bañ ñoo woon falkuleer yi caaxaan yeeg tëgg meeg fecc meeg yooyu tux mi nga xam ne jàpp nañ ne ku du ku yoru gën rek fi na tay doo Baay Faal te man ma gisee fu Cheikh Ibra Fall waxe ne kuy jëfandikoo póon ba faatu te boo ko yomal xiyam doo ma gis maa la wax danaa ci dikk léegi kay wax fam xeweeg nam ko waxeeg ña ko fekkeeg ñëpp lay nettali mhm. moo tax xamuñu ko te suñ ko xamoon jariñu ñàkk dégg Cheikh Rafa lu no dal moo ko teg ndax dañ koo jël nii rek di ko Bay bàyyi faal laa ji na takkar naase te koo làmb doo fekk ci moom Cheikh Ibrahim loolu leneen la te loolu moo ma waxtaan moo tax am na bu ëllëgee bu Cheikh jàkkaarloo ñoom danañ rus ndax ku fexe ba bu ñuy ŋàññi Cheikh Rafa di ko jaare ci yow war nga tiit sa bopp biñ tàmbalee émission di waxtaan mag ñi Cheikh Ibrahim ak dem ci dëkk cosaan am na ñooñ dañoo dañ ne dañoo japp na ñun kon ñaari Baye Fall am man waxtaan na ma seen TV Abdoulaye Lam invité ma seigne bassou Fall alcorane mo fa yabal seigne Bass Cokke sédal na loola ya ngi dégg ma waxtaan am ko ko tok ko xam bokku sax ci yoon wi damay wax bam yag yàgg est-ce que bay Fall nga man ne ko lu man parce que comportement bi nga par di waxtaan man Cheikh ibrahim Fall ma ko pour mu ne parce que man ñima xam ñu doon ay bay Fall duñu sété comme yow ci jotay bi lama ko laaj mi ci YouTube bi hmm amna ko ma mas wax ci dakar no ma yow do bay Fall parce que gisuma la ngay tok waaw kon xamuñu Cheikh Ibra lo loolu du Cheikh Ibra Fall dañ ko war a wax nag mhm. léegi nag maam Cheikh moom nit la woon koo xam ne kër gu mës a dëkk titre foncier la am ma Cheikh Ibra Fall nee na lépp lu jom ak ful ak liggéey di may du ma ko ñaan kenn Cheikh Ibra Cheikh Ibra gëmut loolu ku ñaan ñàkk bu jëndee am la wax kër gu mës a dëkk ay këyit la am ma wax la benn mbir ñu dëkk ndar nañ dem laaj gis nga génn kër sëñ tubaay gi jënd ndar bu yàggul nga xam ne mool yaa ko jënd ca gendar gis naa ko ba mu demee ñaar rakk yi kër googu ña ña bokku ci ña ko doon lijjanti nee nañ ma ñu demee ci mairie bi di defar kër di defar kër yi turu Cheikh Rafal lañ ci fekk ndax gendar moom Cheikh Ibrahima jënd lu lu ëpp ba ca armée li Caaka Njaay ñu dëkk ci foofu ndar xam nañ li may wax waaw armée la ceem yëpp Cheikh Ibra Fall la jëndoon loolu suuf soosu ba tey ji école Sékou Touré boobu ngay gis bu mag ba lii sa ba moo doon kër maam Cheikh Ibrahima Fall fa la sëñ Fallou Fall ganee jamono fa la sëñ Ibrahima Fall ndar ganee jamono fa soo son roqee Fall ganee jamono déy la Cheikh Ibrahima du nit sëñ bi gis nga mooy mouridisme bu Cheikh Ibrahima njëkk yabal ndar gi sëñ Touba njëkk a yabal te loolu daa am lu tax sëñ bi ndar première capitale Sénégal Cheikh Ibrahima mouridisme bi sëñ Touba njëkk defar yabal ndar cëppel ko ci biir ndar te booba ñëpp ngi ndar njaaxa siise sëñ war Mor Massamba Jéeri Jeng maam As Camara alaaji Amet Ndiaye Mabé maam alaaji Malick Si Amet Seck ma jaara Cheikh Sadie mbay Cheikh Samba Jaara mbay ñëpp a ngi dëkk installé biir ndar première capitale senegal Cheikh Rafal sëñ Touba cëppal ko ci seen biir am na lu tax bu Cheikh Ibrahima melutoon nam war a mel sëñ Touba du ko cëppal ci kanamu nitu yàlla yooyu mu jaxasoog ñoom mouridisme Cheikh Ibrahima ko dugal ndar te loolu ñoom sëñ Ahmed Fall sëñ Lamine Gueye ñi gi xam nañ loolu boo ko laaj dañ la ko wax kon Cheikh ibrahim Fall moy kan lañ wara xam motax mam Cheikh nak doon dund lolu ci liggéeyal sëñ bi xitma motax lu am solo la nee la keroog bi ñi gas ray bi xam nga ray bi lolu sax xamna di ngeen ko xam li tax mu jitu jumaaji moy jumaaji touba ko santane la ta muy dem te njort naa ne sax ci la ma daan gisu ci histoire mooy fondation nañ ko lu ci kanamu sëriñ bi waaye bokkul jumaa joojaa nag jumaa jooja nag ak ji bokkul loolu jumaa ju njëkk ji la jooju ñu ko fondation ci diggante jullikaay yi it bi noonu jàpp parking bi ñuy denc si foofu ñuy gaare oto yi jàpp ko sëñ baara gi noonu waaw ba sëñ ba sëñ bi làqoo nag bañ ko indee Touba la sëñ Mour saa wax ne kenn du julli di di wan gannaaw sëñ bi ñu fondation ko foofu boo demee ci histoire li may ko xam waaye bi ko sëñ bi santaane te wax ne jëm leen ca ndax su ngeen ko liggéeyal ñeneen danañ wàcc liggéey ko kon sëñ Mourou saa war a engagé ndigal loolu ko sëñ Touba jox Touba bi nag nekkoon nag faaw kon da nga wut ab raay bu dem ca dëkk ba ndax li war liggéey jumaa ji xaju ci oto saxaara ko yóbbu Touba loolu mooy sawa sababus ñu taxawal raay bi bàyyi ko njaareem jëm Touba bu ñu neexoon saxaarus buutu ci daw de xam ngeen ci loolu murid yee ko gas di daa ray di mu ci la wax même mourid yi sax comme ñun nga xamne ne bu doon liggéey lo duñ xalaat di wacc di wacc dafa yeeku mais comme tubaab mom pexé mëna jëm nako dem na ba wax Mourou sa nak ñi fi liggéey amut ngir yalla da nga leen di fay ma la wax lolu ngon ko jot suñu wàccee nga jox leen seen payor waye xéru mouride day gaaw mouride yi duñ nit sëñ bi xam na la defa suñ leen fayé bu ngon joté ñu wër ci ko sëñ Mourou sa bu suba ñu tégalat leen ko fa waaw waaw ben payor bay daw ay ay ay wër weer sëñ waaw ma la wax lolu mag ñema ko netti fekk nañ ko di baye ñang wax na ma bis ba señ mu musa mbacki di ñu limu ñuy tambali ngas ma manto bu sokola la sol sol la fa kër gu mag pentum jari 1929 mu taxaw ci kanam sappe tibb suuf suynu kabar bob yoon mo dom bobu atno pel nak ndax duma mag yoy way ku tek sa pel ma fop gor gi ibra fall major nanu kérok bi yalla dogalé ñu tambali liggéey ba ta dana la wax de gis nga cheikh sa mam cheikh fall ken du mom may leen ma tuuti nag tuuti nag kooku awma sago ci moom ma wax ci benn lu gàtt rek keroog bi yàlla dogalee réunion yu mujj yu mujj ngir ngas mi Cheikh Ibra Fall fekk na ko te bi ma waxtaan nañu suñ mënul saa yoonu yoon discuter kay moom yàgg def nañ ko ay yoonu yoonu yoon ndax li tubaab bi teg dafa metti junni nit ak juróomi téeméer ñooy gas raay bi duñ lekk ay nang yii lekk ceebab ndawal la ñuy lekk ndax liggéeyub suuf daa diis dañ leen di fay ku ci faatu mbaa mu gaañu wala mu am problème sax ndodd lay gàddu luñ lu ne ñu wax ko sëñ Modou saa rek ngir gàllankoor maa la wax loolu jotaay boobee Cheikh Ibra Fall ngi toog Cheikh Modou Moussa Mbacké ngi toog li ma wax na boobu sëñ Tuubaa dem na ndax li may wax 1929 lañ tàmbali raay bi te 27 la sëñ Tuubaa dem comme fekk ko fi pour mu gën a leer ci noppi ñiy gëstu wala ñiy bind xam nga waaw léegi nag mu Moussa Mbacké ngi toog Cheikh Ibra Fall ngi toog Cheikh Modou Moustapha Fall ngi toog mag ñaa ngi toog waaw mag ñi nee nañ keroog bi tubaab yi waxee ba teg mu metti Cheikh Ibra adduut de Cheikh Moussa Fall na bërëccu wër bàyyam Cheikh Ibra Fall ba jàkkalu sëñ Moudou Moussa Mbacke ne ko Mbacke Mouhamadou Moustapha tubaab yi luñ la wax nangul déglu bu baax lu la tubaab yi wax neel waaw ne ko li ko dalee njëriñ ba Touba man Moussa Fall foo mënta tëral fekk weñ danaa fa tëral weñ Cheikh Ibra fudd nii bu defaan nii rek mooy yéeg na lii parce que ñaari loxo yi ca kaw ah Moustapha Fall sama doom jërëjëf doom ah Moustapha Fall jërëjëf doom xam nga ne Cheikh mu du gone de sëñ bi Cheikh Rafaal nam toll ca boromam ku nangoo àdd ci kanamam yaay kan waaye Cheikh waaye xel ma ak fit wa ak pas-pas ba kenn fekku ci sëñ bu Moustapha Fall noonu la ko doxalee nag engagé ndax baayam daa dem daa gunge rek dem Cheikh Rafaal waaw Cheikh Moustapha moo àggale liggéey ak sëñ Moudou Moustapha Mbacke cheikh ibra daa rek dem way fekk ne lepp nak motax gis nga xitma jombul ken, dama na la li ma lay wax ni gis nga seigne Mourou Moustapha Fall seigne Touba sas na ko liggey ci ko rok sax amna yu ca xew fàttewu dara ndax ya jeefaal taw wax nañ ne sax dem na ba jël lenn ci ay bagasam tay la ko ngir jox ko Mourou Moustapha waaye ba Cheikh Ibra Fall yëgee liggéey boobee sëñ Touba di liggéey la sëñ Mourou Moussa Fall daf caa tàng jër xam nga lu mu wax héhé ay waay ñee naa la yow mi sëñ Bambay liggéey loo waaye ku xamoon na soo juree doom mu lay ginnaaw ci sëb sëriñ di ko liggéey jar na ba jur doom la wax loolu wax kay <laughs> la wax daf ko ne xamoon na soo juree doom yow Moussa Fall mu lay gannaaw ci sëf sëriñ di ko liggéey jar na bay jur doom kon koku bàyyi wutoon ken ta Cheikh Ibra Fall mbaa xam ngeen ne ma wax len fi sax ben mbir dama len koy baxé doonoon nag lu gis ci téré wala dara waye dama len di netali man li dal sam xel wax nako ci batay tey ko ba ci ziar sax li dal sam xel xeyna sax man nam nak duma ko jëfëndiko man na len ko diggal te li ma koy def bëriwul waaye li dal sam xel moy sumay ziar damay ñëk ci Cheikh mujj ci ku nak da da am lu tax ma di wax te suma ko di ngeen xamne kon loolu war na yanu maanaa damaa xam jarbaatu Cheikh Ibra bu ganee jamono ci biir këram sëñ Touba bindal ko toqantal Cheikh Ibra naan ko ma xam ne kooku bàyyiwul kenn ak dara waaw mën naa leen ne diw la gane jamono ci biir kër sëriñ bi di jarbaatub Cheikh Ibra gane jamono sëñ bi bindal ko toqantal ngir liir bi Cheikh Ibra naan ko ma xamne lo jele fele bo ñewé dana ci am walam waaw waaw mhm. ku bari yermane la nak man na la koo jox la ko waaye daal xam dal xel la lay wax ndax a ah, señ dañ mu ne wurut di man naa mën ngaa bañ a yóbbaal dara de han ah? man nga bañ a bal dara kon lola lola motax Cheikh ibrahim Fall nak pas-pas bobu gis nga ñu tambalé nak ngasma ma raay ba gi néna ma biñu déjé garab yi tambalé njaareem sambé patar ndula ke ibra yasin ba dala ngaawu dafa non la démé dé légui nak équipe bi Cheikh Rafal joxé ñoy jitu ndax biñu lajé junni nit ak juróomi téeméer Cheikh Ibra joxé juroom ñaat téeméeri nit juroom ñaat yoy sax yépp la doon joxé waye Moussa moko né nak dé da ngay seet nak lo indi ci mbolo ñu ci dess indi seen mbolo ndax fal mëno joxé lépp ndax ñi fi nek faaw ñu barkel cheikh ibrahim fall jox ko juroom ñaar téeméer seigne seigne ahmadou ndoumbé mom itam joxé na lu mat ci mbolo ma seigne am sotuloo mi dekkon ngaa bu gër gi fall ma jox nee mom moom itam joxe na lu mat téeméer ñu jaayante kenn ku ne indi sa mbolo ba mat juni nit ak juroomi téeméer ñu tambali ngas ma góor gi néna kérok bi ñi exsi nak ndula la leen seigne mudou moussa mbacké seetsee and ak masourang masourang surang ngeen daan dégg waaw xam nga xam nga na talibé cheikh ibrahim Cheikh Ibra ko jox sëñ Mourou Moustapha Mbacké maa la wax loolu kay sëñ bi seex Ibra ko jox Cheikh Mourou Moustapha Mbacké ab taalibeem loolu da koo gis te ndar na ko yow mii ni nga yeewoog ni nga nekk homme d'affaires sëñ doomi sëñ Bamba dana la soxla sëñ bi Cheikh Ibra Gore yow boo yoroon taalibeem milliardaire sëñ bi ndax da nga ko ci kenn noo mën a ñaan da ko def ngir a génn kër gi waaye doo ko yabal feneen Cheikh Ibra ma surang surang jox sëñ Mourou Moustapha Mbacké maa la wax loolu noonu la sëñ Mourou Safal def bay daan bay daan daraame jël bay doom bay bay daraame la ci jaayam sëñ Mourou sëñ sëñ Fallou ko sëñ Mourou Safal la ko jël jox sëñ Fallou bay daa mën a ko wax màkki bi mu wàccee yàggul ji moo doon secrétaire sëñ Fallou xanaa war nga ko xam te li discours français yi jamonoy El Hadj Baara te weex bi jaaw ñu dëkk ci ginnaaw bay daan daraame am na ñu ko fi xam secrétaire sëñ Fallou loolu waaw sëñ sëñ Mourou Moustapha moo ma ne defe woon naa ne àddina ci Cheikh Moustapha Fall la tàmbali ci la yem sëñ Fallou ma laaj bi ma laajee Cheikh mu Fall jox ma sëñ Fallou soxna maam say faal ndeyi sëñ Abou mi ma doon sama ndey daara moo ma ko wax bay daam ma wax loolu boo demee sax ci YouTube bi di nga gis waxtaan yi ñu def ak moom ak sëñ Aliou Badra xam na lu bëri sëñ Fallou bëri na photo sëñ Fallou yoo gis mooy sukk ci wetam nee na ma lettre lettre bu ma sa bàyyi ko ci Senghor maay liir maay tontu maay cassé maay tamponné loolu kay secrétaire u sëñ Fallou ñooñu ñëpp xam nañ ko waaw léegi nag pour wax la na la Cheikh Ibra Fall daa jox léppam sëriñ bi wa tak kum gis na man nga dara sax mu yene la domi seigne Bamba takat kat da doon ko digaloon yow seigne Cheikh ndjay sa mam Cheikh Moussa Fall gouverneur Wiltor da wota ci ndar wo kilifa yu bari na da leen soxla gouverneur ndar seigne Mourou Moussa Mbacke di wuy ji seigne Mourou Moussa Fall ñu and ñom ñaar Baye ibrahim boj neena biñ exé gouverneur genn kilifa yëpp ngi rangalo taxaw di xaar bi gouverneur gende jabaram la andal kum jox loxo jabaram jox la loxo nga jël maa la wax loolu de bi mu ñëwee bay jub si sëñ Mourou Moustapha Mbacke sëñ Mourou Moustapha Fall moom benn problème képp la mooy xam na ne gouverneur dana jox loxo Cheikh Moustapha Mbacke te bu roccee loxoom wóor na ko ne ndaw si dana tàllal loxoom sëñ Mourou Moustapha te sëñ Mourou Moustapha du ko nuyu du nuyu jigéen waaw waaye am ñag day gën a ñag ñagas la mu ñag Cheikh Mourou Moustapha sa maam ñëw dend ak sëñ Mourou Moustapha Mbacke bu gouverneur ne jëyi loxoom sëñ Mourou Moustapha Mbacke ba rocc ndaw si na jëy loxom cheikh mour moussa fall nuyu ndaw si na ki di nuyu jigen waye bu len ci dara jaaxal cheikh rafa la nako won mour moussa mu na mu na ko mu nako fu ngeen dajje njabootu seigne bamba lu ra tak ci ñoom ne leen takk yéen ngeen yóbbu tuuma ñom ñu set nako cangi gi ak njam gi fi ne jël len cangi jox waa kër sëñ bamba te téye njam gi su ngeen ko defé da dem ba seen njam gi sax yeen mo leen gëna cangi barki Cheikh Ibra Fall motax mbolem ñima xam man te ñi seuti seigne Tuubaa ko ci gis mu la Baay Fall la Cheikh Abdou Karim Mbacke mu seigne Fall mom ko mu jox wax jox li ma sol moma ne man deret yi Cheikh Ibrahima sama yaram barki Cheikh rafal moo ko wax ki fekk nako moma jox lima sol mo mané ne deret Cheikh Ibrahima sama yaram ko ci gis ko ci lamb mo na la Cheikh rafal fi ne kon Cheikh Ibrahima moma ta waxtaane ngir nu xam nan lañuy def ba ak top ku bax ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim be lolu amé xolal ngasma ñu top nak di gas raay bi nena la Cheikh Moudou Moussa Mbacke ñëw na ba indi leen warga bu bëri ak café da ngi ma daana maa ngi yeen korok ma surang la andal ak mbaxan wa goor gi neena mbaxan gis na ko mo Cheikh Moussa and keroog ma ngi janoog yeen di ngeen ci am dimbalal tay ak lool ëlëk seigne mouro ko wax keroog da li leen ñaanal waye ba gas nak di continuer bay dem bay tolok dala ci la mourid bu mag ba ñëwé Cheikh ibrahim Fall korok bu mi ñëw wax ci wagan bobu ma lay wax na autom la mom la war seigne mourou Fall Mbenda ko don dawal goor gi neena mi ngi and ak sëñ Modou sing Modou moy moy mo nek ni fete ko càmmoñ ni ci photo bi ki ni mom la andal àndal ak sëñ Ndiaye Rokhaya ak ablay Xaar Diop doomi Lat waw ma ma la wax loolu de ah ablay khar ak Mbaaxaan fu Cheikh ibrahim dem dem fo Cheikh ibrahim dimbali am ah, mo len dimbali di seigne xamone nga ne motax ñu doon ay murit la ilaha illallah seigne bi ñoñu Cheikh ibrahim dimbali jangal histoire wala nga gëstu koro bi ñew di jox sen jox sen bop seigne Touba le seigne Moussa Ka netali seigne Moussa Ka nak ay waxam nit ñi dañ ko def wala fa lay neen waaw te xanaa xamoo ne ndabal sëñ Tuubaa lu muy wax ak jaam ñi sëñ Musaa Ka mu la woyal gëstul taarix ba histoire la nettali da koo woy rek waaye taarix la mbaaxaan ak Ablaay Xaar dama lay wax benn mbir keroog bi ñuy ñëw di jébbal sëñ bi seen bopp am na ñenn ci mag ñoo xam ne ay yat lañ fàq na duñ dugg ci kër gi loolu boo jàngee histoire xam ko waaw ay yat lañ fàq na ñii duñ dugg ci kër gi ndax la tax mooy dañuy fàttaliku démb baaxaan yaa ngi maa ngi yàlla ngi yonent baa ngi seede yaa ngi mag ngi di fàttaliku démb bëgg a gàllankoor egsi mbaaxaan ak Ablaye xaar ci sëñ Tuuba ndax comme dafa yàggul di digganteeg daaru mar naan bi sëñ bii demee gànnaar tukki baag la ca xew ak ña demoon jaxaseek nangam ñu ña doon visité si kër daaru mar naan nga ca la bokk moom mbaaxaan moo ànd ak ñoom bi ñëwee di visité kër gi loola yàggul dara ak bi mu bàyyee la sëñ Musaa ko fa sànni yatu nguur foog yotu ngëm di di wut si texe loola yàggul di france boobu loolu mag ngi di fàttaliku nag la xewoon ba muy ñëw di engagé di visité kër gi ak la ca xew ba tax ñu jël seen yóbbu gànnaar mag ngi commencé indi jafe-jafe ne ne lu mën a xew mooy ay yat la ñuy fàq waaye kii moom du kenn du ko nangul moom mu daal di dem ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra moom lu lu të daa yeggagul fi moom waaye waaye lu yegg si moom nooy nepp ba ba mu ñëwee xam ne Cheikh Ibra xam ne kii lawoon démb bàyyi na ko léegi am na leneen lu mu gis ngir bëgg a bokk da koo dimbali rek te moom ñaari kàddu rek la wax sëñ bi dafa ñëw na ko dimbali mbaaxaan ndax firaw naag mbonom nga mbaaxaan mii yëggu ci te yaa gën Moussa am na ci loolu koo ko wax nit ñu jàppale de kenn du ko wax sax moo tax Cheikh Ibrahima kay ñim dimbali ay buñ ko doon waxtaanee fii du jeex loolu nag ba mu amee ablay Xaar mom ci jotay ba la bokk koroog Cheikh ibrahim Fall andal gor góor gi ma nettali neena ma ngoy xambe mo and ak Cheikh ibrahim Fall ak ak talibey seigne jay Njaay ak seigne Yaaram bay ak bay Cheikh tal Galo neena ci la and moy ndama su gatt su am len Cheikh tal ku guddu fan la nak mom 137 ans la dund hmm? Cheikh ibrahim ne ko woon sa néeg mi day gàtt fan loolu waaye doo at ñaar da dund Cheikh tal mo daan tok nan bu xaru dagonon ma xaru ndax limu dund da bari mom ca mbolo ma la and léegi nag maam seex mag ñi biñ ko séenee muy ñëw dañ ne teg leen liggéeyukaay te yegg suuf ndax kilifaa ngi ñëw teg leen liggéeyukaay te yegg suuf ndax kilifaa ngi ñëw ñëpp teg liggéeyukaay te yegg suuf waaw ñu ne nañ ko xool noonu rek ma ma góor gi nee na mi ngi sol maylus bu ñuul kaala sàmba sàng yu guddi yi la la ba bëcc ma wàcc Cheikh Ibrahima nag kenn daw gis boppam neen daan sol ñaari mbaxana ba pare kaala wu tege xar kanam bi rek kay nee na sol daal di wogganti bi mu ñëwee jub si leen dafa daal téen xalaat bisimilah jàmm comme ni naan wax Modou Moussa Mbacke mooy góor waaw lii la wax ah Cheikh Modou Moussa Mbacke mooy góor wax ko ñetti yoon daan na seen liggéey bii mbaa foowu leen ko ñu ne ko ah déedéet Fall mu ne foowu leen doom seen liggéey ñu ne déedéet mu ne ah seen pënd seen pënd baa ngi may seen aras lay Cheikh Ibra Fall xam li xew nee na seen pënd baa ngi seen aras ah ku ne war naa def ni yéen doom ku ko mënta def nii ngeen koy dese na gas am leeñ ndax bu pëndum jógee jaxasoo seen pënd bi dooñ fa fanaane sori na de daana te pënd bi kat bi damay day yële ko koy def yëgal ay wëccuram ay wëjuram nag lepp ci mucc lay tabbi doom Dan ci borom yoon wi daan na alme li alme kay ma def ni yeen góor gi neena ma ku ñu wax Jibril Gueye ko pel peel seex ba tuddu juroom ñaari pel su ta taxaw tin na gaa gis ngeen ma ñu ne ko waaw na a dom doom gis na leen daan na waaw fu Tuubaa fete ñu dem mbokk joxoñ mu daal ah, leen ko xamna ko doom na ngi bëgg mat góor de bisub talata la la ko wax talata ci dil altine ci guddige sam cheikh wacc ma wax leen ne leen na xet ma kon yéen fi ngeen ne baax na ndax Cheikh Ibra Fall moom daa xet ma ba jógee fi waaw maam Cheikh ne maa ngi bëgg a mat góor waaye sëñ bi dégg eh, nga kon mat góor moo ñibbi yomal xiyam Cheikh Ibra Fall la ko wax de mais maa ngi bëgg a mat góor la wax waaw daan daan wallaay di wax na liggéeyu sëñ Bamba kat doom Cheikh Ibra wax ku ci yebal sa doom toog bu de sa bàyyi waaw Cheikh Ibra wax loolu keroog maa ñi nee nañ Cheikh Ibra Fall nee na liggéeb sëñ bamba ku ci yabal sa dom tok ci kër gi bu dikki di sa baay daana dom liggéeb sëñ bamba ku ci yabal sa xono tok bu ñëw di sa jëkkër bu dé sab jaam bu dikkee sab sàng lay doon daana liyee tax ma ñëw na ngeen ma seedal na ko doom ñëwoon naa moo tax mëna la bayiwul kenn nak dara na ngeen ma seedal na ñëwul na dom séra fa la ko wax da di leen ñaanal ndekete day talata jojé kay gi na altine fañ fanan ci guddiga fa lañu Cheikh rombu jëm Touba ñu ne ñu ne maam Cheikh fi jaar fi guddi daa wàcc liggéey mu tombeeg ñetti fan itam xarit ñu xëy denc ko ca talaata ca ñeenti fan ya ci Touba te Cheikh Ibrahima it ba muy wàcc liggéey Serigne wu mbakki moo ko teewee maa la wax loolu Cheikh Mouhamadou Bachir ni mu indee sëñ Touba Touba la indee Cheikh Ibra Fall Touba wax leen loolu tey sëñ Bachirou moo indi sëñ bi Touba loolu moom. Pikine loolu moom loolu moom noonu la demee ndax defe naa juróom ña woon ci oto ba keneen juróom benneel sëfoor la woon muy Dut Cissé Cheikh Khary Dieng Diop nijaay sëñ Bassirou Makhtar si la bëkk néeg la woon sëñ ma Lamine Diop Dagana sëñ Bassirou Mahamadan Tandaxi mooy naar ba juróom ñii indi sëñ Touba Touba ak Dut Cissé ma doon dawal oto ba mu juróom benn léegi nag sëñ Bassirou moom mu indi sëriñ bi Touba moo jëlee Cheikh Ibra Fall njaarim indi ko Touba Cheikh Ibra kër sëñ lañ ko fanaan waaw ko sëñ Fallou lañ ko fanandal ñu wàcc liggéey loolu Baye Moustapha Seck na ma yaa faj jaañ moo ma ko nettali nee na ma keroog maa ayu njëlul sëñ Fallou maa ko aye togg añ togg reer coono yi jàpp ma ma gëmmentu nelaw nekk te indi nañ saam seex ci guddi gi ma xëy ci fajar gi di wut ma poftan ma tàngale café seen kun sànga mbàjjam leen ci biir kaas bi ma ñëw ci kenn ci soxna yi fa newoon na ko waaw li ma fii seen nii ci guddi gi ñu indi ko fi lu mu doon ma ne ma santal yàlla sama am seerafal lañ fi indi bii que sëñ Fall ko fanaan loolu xëy nag bëggoon koo denc fii ñu denc ku baax xamal nga ci loolu barabu sëñ Tuubaa bii lañ bëggoon def Cheikh Ibra maa la wax loolu de fii lañ ko bëggoon a denc fii ñu denc denc sëñ bi waaw fekk boobu batale na boobu batale na xam nga kan la batale sëñ na Abdourahmane Lo ak sëñ Mandumbe Mbàkke ah, waaw waaw eh, kooku moom Cheikh Ibra da ko bëggoon lool sëñ Modou sëñ Mandumbe ah moom sëñ Modou xabbaan dong sax ci ay loxam daanaka la cheikh modou moustapha wàcc liggéey dañoo nuro aw aw doxit nak motax dakar gën gañ daan daje boo dee da koy gis ñom ñaar moom buñ masaana dajé dañuy am ñu def yalla da leen a boole seen barabi nonu mu mel mbir la buntu bobu dox seen diggante waxtaane won nañ ko bu yàgg amna luma ci xam nak day waxtani bir nit <coughs> waye cheikh rafal nak nga xam mom leppam da ko jox sëñ bi xana xamone mam Cheikh dencul dara gis nga bim fi bayiko 450 francs la fi bàyyi maa la wax li sa way mi amna ci sédé ñeen fukki dërëm la fi ci man man Mamour maa ko loxo laaj neul Mamour ko wax juróom ñeen fukki dërëm te kam tege ca loxom te loxol baye moo ko netti ci gibbu uhuh juróom ñeen fukki dërëm la fi Cheikh ba fal te pourtant xamul nga ne Cheikh bi nekk ndar li wax milliardaire nekkon mam Cheikh mais cheikh ibra ëppoon xaalis ñëpp da ko jekku adina la jekku gis nga gi deddu gi àddina yëpp daf ko am ba pare xam nga nit mënta deddu lu mu amul wala loolu mën naa ne léegi nag danaa la wax jàngal benn mbir gis nga xam nga lan mooy deddu adina mooy nga am adina ba wóor na na foo tàllal ñu teg sa loxo soxla woo ko moo tax sëñ Mandoumbe ak Cheikh Ibra Fall noonu lañ meloon dañ koo am ba pare woon ko gannaaw gars yi na xam nga lu leen dal découragé waaw xam nga dañ nuro ku dëddoo ku décourage am dañu nuro parce que bu fekkee ne wird woo xam wird nga ko saafara soo xam sango nga sëriñ boo dégg dem nga fa adina wo nga ko ba sonn adina ñëw nga jekki jekki sopp ku ñu saay daa mel daa dëddu fekk daa muniru. billahi découragé ak dëddu adina bokkul xàmmi naa leen bu baax dañoo sëñ ku ci am adina jël sëñ bi ah sëñ mu niru mhm. léegi nag cheikh ibra ah, daa daa am adina te doywu ko dara dafa am àddina waaye soxlawu ci dara kooku kooku bu ko neexee dëddu àddina waaye ki woo àddina ba sol àddina ñëwul te ki xamul dara jàpp ne daa dëddu fekk wallaay lancim boo ko làmbee xam ne daa découragé barke sëñ Tuubaa wallaay du caaxaan moo tax maam Seex nag soxlawutoon dara quatre cent cinquante francs la fi ba ci xaalis <clears throat> juróom-ñeent fukki dërëm te juróom-ñeent fukki dërëm yi kat Cheikh Ibra bàyyiwu ko ci suba ndax ba mu xëyee ci altine ja dafa lu ne ci kër gi lu ne nañ ko yobul seigne Mourou Sambaki bu dara dess ci kër mag ñi nenañ lali sax dañ ko doon dajji du yob di yanu di yob kër gu mag maa la wax lolu bu ne ba timis jot mu laaj bàyyi Cheikh Ñang mbaa kër gi dara dessu fi mu ne ko ah fal juroom ñen fukki dërëm def mu ne ko ah num nu mu ne ko diw mo fi ñew indi ñaar diw ñew fi indi ñen fuk diw ñew fi indi nangam ba ma fukki dërëm Cheikh rafal ne he he monta gaay goor lañ de waye ba bañi wax ba bañi fay wax jëf waaw Cheikh Ibra nee na ba ëllëg ba xam danañ fay wax bàyyi jëf gars yi nag lu leen rëcc ci jëf ñu bëgg ko dab dabaatal ci seenu làmmiñ te yàlla xam na ne Cheikh Ibra Fall nee na kër sëñ Bamba dees fii jëf baraw kenn du wax baraw kër sëñ kër sëñ kër sëñ Bamba moom moom soo bëggee xam li fi may dara toppal sëñam di xat yi parce que Cheikh Ibra bu sëñ bu Cheikh Ibra Fall dellusiwaatoon toog ci péncam mais xaw ma kuy rus joxal loxo waaye du ci bokk waaw maa la wax loolu de waaw fal kooku am na kilifa mbakki mbakki goo xam nee nañu danaa bay bu guddi jot ma yor addi joo xam ne wóor na ma ne su ma koy teg ci loxol sëñ Tuubaa laa koy teg ku ma ko jox xam na ne sëñ Tuubaa ko jox nee na ma bay bu guddi gi xaaj ma sant neneen fekk si ñoom di xëy toog ma jox ko ko yoon i moom jëf la te jëfe fii may dara te mag ñii ma di tuddal ñëpp liñ am ci sëñ tubaa am ko ban mag ngeen fi mas dégg ci àddina ñu ne xam-xam bu rëy tax sëñ tubaa seexal ko ah ban mag ngeen fi mas a dégg ñu ne baatin lay wane ci kan mu sëñ tubaa mu seexal ko koo fi dégg ñàkk am sagu ci sëñ tubaa mag ñi amuñu woon sagu ci sëñ tubaa gis nga ni sëñ tubaa ni Cheikh Rafaal meloon ci sëñ bi ba daaw tudd turam sax te jàpput daaw ko jàkkaarloog moom pour pourtant ñi bokk sëriñ bi noonu lañ meloon ci sëñ mu niiru sa maam bi fi sëñ bi jógee yeex nañ ko ko wax sëñ ma sàmba kenn ñi mu koo tàgg sëñ Tuubaa koo ko ñi ne denc ba sax fekkiwu ko ndax loola moom sëñ bee léppam di sëñ bee bàyyam moom nee na xamul moom sëñ Tuubaa la xam di xamul keneen ku du sëñ bi te te sëñ bi te xanaa xamoo ne ndonul seex ndonul sëñ ma sàmba ci boppam sëñ Tuubaa ko waxal boppam te booba ñëpp a ngi fi booba sëñ bi tout tànk da ci saayir ba leen fi cërub góor kay ba ko sëñ bi wax boobu sëñ Masamba ñëw ku jamono amul sago moo tax amul sago ci moom mag ñi li ne fi ñoom lañ moo mat a feeñal moo tax dafa am lu ma marqué ci Cheikh Massamba te dana ko nettali sëñ bi maam Cheikh Anta dañ ko daan naw ci mën a joxe ñëpp xam nañ ne borom gaawaan joxe kenn mënu ko ci waye liñ ko dan yim yim yim, mom ci sëñ Massamba la dan yim. maa la wax lolu da nga dan ñew mu di jox di jox bam yag na la dama ci Massamba mom man ñepp lu am joxe ko ngay bëgg dem la dugal ci bir xolal Fatiha rek ni mel ko ko mëna jox ta yalla dox man nga joxe ah bi <laughs> ah sëñ bi dama la wax na la mag ñi dafa am lu neewon fu ñoom lo xamne ci jamono ji suñ bëggee am référence yu wóor dañuy wat ci ñoom barki Cheikh Ibra Fall bëri na looy gis li sëñ Cheikh ne di wax naan dang dang jurul jeex guddeeg bëccëg te boroom defe na ma nga ca dara te néew ca dara ñoom eh, eh, eh, mat naa yërëm hmm? te loolu mooy dal ñu bëri ci jamono ji dañuy topp lu ñu xamul lu mu ak topp lu du jariñu delluwaat ci mag ñi di leen teg ci jotaay yu mel di leen waxtaane mooy yokk sunu pas-pas ak sunu jaayante sëñ Tuubaa boo gisee ko naa ne léeg-léeg waxtaane sëñ bi sa ëpp na d'accord xam nga lu tax mu wax la ko mooy jëlal mag ñi teg yow soo waxtaanee mag ñi ba dugg ci xol yi lañuy ñuy gën a xam dëgg dëgg sëriñ bi mooy kan ndax li ne fi mag ñi sëriñ bee ko ca def maa la wax loolu sëñ bi dama la wax ne sëñ Tuubaa mu mbër du feeñ ci kanamam waaw mag ñi duñ gone sëñ sëñ bi la mbër du feeñ ci kanam waaye mag ñi duñ gone de ah sëñ Ahmadou Diop Pakha ma nga xam ne tàkkusaan ko jot mu doxantu àjjana ñëwaat barke sëriñ Tuubaa sëñ Thierno Diaw ma ko nettali sultaanul aarifiin waaw saan gu jot sëñ Mat Diaw Pakha doxantu àjjana del si àddina am bis mu ñëw na sëñ Tuubaa da ngaa bere Cheikh Ibra Fall loxo Cheikh Ibra li nga ko defal ëpp na sëñ Thierno Diaw nee na ma sëñ Mat jaw ne sëñ Touba ne Mat Diaw lu ma defal Ibra Fall mu ne ko tàkku saan gu jot ma teg sama tànk buntu na waaye gisuma fa kër gu Cheikh Ibra Fall moomu xanaa mbàkki ëllëg Cheikh Ibra ñuy sédd sëñ Touba ne ko monte mors am ngeen ca de mu ne ko defal ma fi Ibra Fall teg gëpp tànk ma teg fa sans bos sëñ Touba ne ko loolu faat na waaye fu mu jàllee waa kër nga seen pëndam sëñ Mat Jaw Paxa dil si fi sëñ tubaa Cheikh Ibra Fall na ko su ci nekk malaayka teew yomal xiyaam seedal na sa xarit laa woon yomal xiyaam bu ci nekk malaayka teewee man Mat Jaw Paxa li ma julleeg li ma wóor lépp la ma fa gën a doy mooy na Ibra Fall yëkkati loxoom ca kaw na Mat Jaw Paxa mi sama xarit la woon moo tax ma ne xanaa moo tax ma dégg sëñ Mat Jaw sa bàyyi des fu nit ñi na Cheikh Ibra Fall bu nit ñi xamoon li ne fi yow say buntu du feex mu ne ma lu ko wax ma ne ko lan ma sama bàyyi nee na Cheikh sur woon ak kiñaan gii ci réew mi kiñaan ak nit ku ñuul ni mel ci mbon xéewal gu waay teg bala mu caa yab loxoom dana wax ci làmm ñam na jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall ndax lu waay lekk ragal yow na ko Fall ñi fi kër kër yi ñëpp saalal alal lañ yor sa alal te suuf jutu woon noddu sax noddu ñu la ci noddu sëñ ma jaw nee na Cheikh Fall suuf jutu woon noddu faal ñu la ci noddu na ko ndax am na lu bokk ci noddu te kenn du ko waxaale ma laaj ko lu ma mun a mooy fajar waaw nga loolu fajar noddukati la gëna a xam neexaayam mooy jug fajar bi waaye mas ngeen dégg kenn kuy noddu moom yaag mëna a ngalaw lekk neex nono ko non nga mel ci biir nit yalla yépp neex nga ci ñëpp duñ la waxale waaye ci nga mhm. moo tax Cheikh Ibra Fall dafa mata a waxtaane te pas-pas bi mu amoon ci sëñ bi ak bëgg gi bàyyi Cheikh tal Galo xam nga moo daan toggal Cheikh Ibra Cheikh Ibra góor ko daan toggal Cheikh tal moo daan togg waaw li daan dem ci ku baax ki lépp Baye Cheikh Tall la ko daan togg ci loxol boppam ci waañ wi ci njëriñ Baye Cheikh Tall nee na damaa togg ba pare maam seex yan ma ne ma yóbbulal ku baax ki nee na boo ñëwee njëriñ dafa am kees koo xam ne te la ñuy teg ndab yi ku indi sa ndab fa nga koy teg amul ñëw jubal ci sëñ bi de déedéet teg sa ndab rek dem sëñ bi moom mooy bàyyi ba mu soob ko ku baax ki mu génn xool ndab yi nee na kees gi ndab yi rek lañ fay teg sëñ Moustapha Saliou sax dégg naa mu ne Serigne Soy bu ma joxoon na ko wonoon na ko boo xam daf ko ne yónni na ko Serigne Touba ba tay ndax nee na mujjug sëñ bi ci njaareem ku dana sëñ daan wax ne ku am yitte ndab la ngay def ñam na nga ko ko wax dana ko dana ma ko bu ñëwee nee na sëñ Soy boo ma won loola dama lii yónni na ko sëñ soxna xarit si la moo ko ko jox na ko kenn la woon ci soxna sëñ bi na ndab li yónni na ko Serigne Touba ba tey ndab loolee sëñ Soy bu moo ko yor sëñ Moustapha Sall nee na gis na ko moom gis naa waxtaan woo dégg naa ko Baye Cheikh Tall nag nee na ma yanu ndab la ca kër Cheikh Ibra Fall ñew di ko indil ku baaki mais bi ma duggee ci kër gi jubale ci caisse ga rek dajé ku baaki genn di xol ndab yi mais suñu mana ñent ñeent mu ne ma kokkal la mu ne ko mën a seex taal mu ne ma ndawul ibra fall mu ne ko mu ma na xam nga xabibullahi mu ne ko ngi koy dégg mu ne balla cioro demal wol mako hmm ma ndaw balla cioro bima dikké nak xamna cheikh ibra xamna li xew ci batine ma fa xawa a tax <coughs> mu ne da nga lu xew ma ne ko ku baax kii ma yónni woon mu ne ma kan ma ne ko sëñ Bamba mu ne ma yónni mën ne ko waaw mu ne ma xeexee laggat biir toog bis ni ki tey kenn dootul yónni waaye sëñ bi sa sëñ bokku ci xoolal bis ni ki tey kenn dootul yónni Cheikh Tall bàyyi Cheikh Tall galoneel koro lu fa ñëw ci xéwal mën na ko Cheikh Rafal jox ab taalibeem la woon kat di yee gën a tuuti ca dongayee nee na ci saa si Cheikh Rafal jàll ma ca saal ba ca néegu fa mu gën a fonk nee na lu ñëw ci xéwal mu ne xeexee doom yut leen Cheikh Tall sëñ Bamba ko yónni waaw xeexee doom yut leen seex taal kat sëñ bàmba ko yónni woon kat doom ne lu fa ñëw ci xéewal mu ne yut leen seex taal doom sëñ bàmba ko yónni woon ku sëñ bàmba yónni kenn xam ne bàyyi seex taal seex na ci saasi nga xam ne li ko seexal moom mooy yónni ku ko sëñ Tuubaa yónni te it nag gars yi am na ci ñooñ fi ne benn yoon képp la seen ma la sëñ Tuubaa ma sa yónni seen maam ñu jaare ca seex de maa la wax loolu sëñ ah sëñ jéeri waa daan su ko déggoo ko xanaa ku ma laal baax koo laal ku ma laal baax ndax maa laal bàmba waaw ko ma laal baax ko lal ko ma laal baax ndax ma lal bamba eh, señ bi kenn du mom motax mam cheikh lola nak nag la ko yàlla defal ci señ bi muy taw jo xamni bokk ko kenn Cheikh ibrahim Fall bëgg gi ak pas-pas bi ak gëm ki señ Touba la ko kenn fekkul señ Touba yëkëti na mbir ba tay ne ku xamone li buñ ko don xayma limi wara jar mag ñu bari joxe prix waye bam exé ci Cheikh Ibra lum koy wax ba ko laalu ko mës na koo xayma waye bi ko lalé prime yëmatul fen da ko xam koko nak motax mu meuna a defar ay mag nee la léegi Baye Mor Ndiaye tombu del ci jaalibatu marak la dan dox waye Baye cierno Sall ci nuru Daani la dan dox Cheikh amone mag yegg ci yalla ñi limal ñu ci bëri sax ñu kër am na ñun ba wuñu fi doom déedéet Mor Ndiaye Dank boobu fi doom sampul kër Baye Thierno sàllu boobu fi doom sampul kër Baye Mor Ndiaye Tomb del boobu fi doom boobu fi doom de te Cheikh Ibra leen yar te Baye Mor sax xoolal garaatub tomb del Cheikh Ibra ko ko jox te loolu ab liggéey la woon te gébbu maam Cheikh da leen daan fekk ñuy gas ab teen ba mu leen yëree fekk ñuy dallu waaw gas ba sonn noppalu rek maam Cheikh ñëw tiim leen nañ ñii ñu mu bàyyi moor na bari na ko ñu na mu ne lu ngeen di def nii ñu ne ko dañu noppalu mu ne du ngeen am yàlla yéen waaw du ngeen am yàlla waaw Cheikh Ibra nee na jong ma sax ko ko nobe soo amee joxe soo amul joxe doo yeggale su ma amee joxe su ma amul du ma joxe Cheikh Ibra nee na ku koy nobe jong ma sax doo yeggale ab tool ku koy bayee su ma mënee bay su ma mënul bay tool bi booy Mhm. bay Mor nak ba mam Cheikh waye lol rek la di tabbi ci ten ba moom maam Cheikh tim ko mag ni lay Mor jay deena bërëngu rek na, dir ci bir ñu ne deena deena deena Mor jay deena Cheikh Rafal tim ko ten ba sori lol Mor gennal mo do nga ci da nga ne ci biti soxlam am ndox ma ne ci biir soxla ndox luma gën taw ndox waye bi Cheikh Rafal di jëm ci dara jak ba muy laaj kay ba ak bi bay Mor di fi tax ben la te bay mor kat lu gaw gaw gaw ken yuru koy goj te mo dem jëli kay ga moy siège ba tegal ko mam cheikh lolou batin la cheikh rafal gesna ki kan la ci féré yi né manako mana mor ndjay munuma ya dugon mu ne bi te ken yuru lay goj manako ne munuma dom yagina te ken yuru lay goj manako munuma he he dom bi ngay xey si ci man sa màqaama ci yalla ci ñent la tollu ñent waye bi nga tàbbee ci teen ba dom tomb naa del xey ñent gonto juroom ñatt téeméer ci daraja xama del kat la nga tomb ko muy 700 Cheikh dile ko ci kar yóbbu ko ci 700 lolou moy tomb del motax Baye Mor di waxna lumay jign bu tëë dem ànd ak reen yi lu may ñoddi bu tëë ñëw ànd ak reen yi waaye du ma rek ay de mhm. jaalibatu maraaxib nag Cheikh ibrahim ko ci joxoon digal Baye Mor waxuma la junni marahib yam dan jang nga xamna ñota bang ko fa jangé dekk ba sax seigne fallou seigne Mourtala wax nañ ne moko ko Baye Mor mo mo dekkon fofu de moko jox seigne Mourtala addi Cheikh ibrahim Fall neena liggey liggéey xam nga lan la waxon sama mam liggey gën jang joxe gën julli mando gën kor wallahi lan seigne Baye Cheikh lako wax loolu julli korte waaw julli te am nañ ko fekk ñi ngi dund laaj leen ko seigne Jaga job bu ngeen ko xamee fekk na lola moog seigne Cheikh Fall ànd keroog ca jotaay ba seigne Assane Mour Moussa Fall mooy Assane yeli fekk na ko sëñ Mbacke Fall présidence nee na ma fekk naa ko sëñ Khalifa Fall njaarim nee ñu bëri ci njabootu Cheikh Ibrahima gi fekk nañ ko loolu julli korte la woon ci njaarim ñëpp a ngi teew sëñ Moramin tey jot li sëñ Baye Cheikh jóg na ko dafa am loo ma bëgg laaj sa Baye Chérif Assane damaa gis ñu yaakaar seex bi di jullee ko woor ñàkku ci mbooloo mi ànd ak yéen ñàkku ci mbooloo mi ànd ak man te dama ba seen maam seen Baye Cheikh Ibrahima Fall fii ci kër gi mu ne ma seex ma ne Fall munum bu ma kenn tuumaal man Cheikh Ibrahima néew ma kenn bu mu julli bu mu woor waaye sama borom moo ma ne ameelu ma la borom jullee woor yàgg koo ànd soo ko defee du ma leen fay na ma Cheikh banka sa baara ma bank nee na Cheikh Rafal na ma liggéey gën jàng joxee gën julli maandoo gën ko Cheikh Rafal ma ko wax benn bu dañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko gën jàng gën julli maandoo gën ko ba xam kon Cheikh daa xam li xew moo tax njabootu sëñ Tuubaa gi doon ko dund barke Cheikh Rafal yéen dugal ngeen bi de talaata lii ma leen di nettali su ngeen gisee sëñ Mbay Ngiraan ngeen laaj ko njort naa ne sax yor na yor na yor na yor na mbindum sëñ bi ci loxoom lu ko fu ko nettalee sëriñ bi daf ko woolu bis na ko Ibra Fall ñaari bis yii de dañoo ñëw fi man di ma jàmbat seen bopp na dañ leen a gaafal ba duñ leen duñ leen boole ci dara muy gaawu ak talaata na ko man nag jël naa gaawu waaye rafaat naa la talaata bis boobee trois cent treize njulli la Cheikh Fall xarafal ngir barkeloo ko ci baatu sëñ bi daa di bàyyi mbéykan na ma Cheikh Ibra nee na ku ci xëy bisub talaata xëppoo cim ndox kep ma am xepom ndox rek nga xam ne doo laal saabu do laal dara Cheikh ibrahim neena da nga guddu fan da nga bari wërsëg loolu defal na lam ko addiyee Cheikh ibrahim ak talata ji nga xamne sam Cheikh mom si bokk ko kenn waaw ndax talata lu ko seigne touba geureum fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gam ca daru salam bolé ko borom gawan maam Cheikh ne ko dénkal ma ko As Camara ca Ndar talaata talaata it la wàcc liggéey waaw guddik al guddik talaata mooy altine ci guddi talaata ci dugg na kon talaata moo tax sëñ Bassirou Fall alxuraan na man damay màggal talaata moom talaata jot mu defal ay xéwal yóbbu ci barab maam Cheikh Ibrahima Fall te sëñ Mbàkke Fall ay baayam te sëñ Mbàkke Fall sëñ Mor Jaara magi mag la ko Cheikh Fall tuddee mhm. waaye sëñ Touba la sëñ ma jopp mooy dafa la mu wax mu dafa beral Cheikh Fall loxo waaye loolu la de ndax xanaa xamu leen ne addiya yii li ciy jaar ci loxol Cheikh Ibra Fall kenn du ko audit day déet maanaam li ma wax ne moom lu may lu ma leen di baaxe la fexe fexe leen ba li ngeen di am moo tax sëñ Touba jox ko sañ-sañ muy defaree ceddo yeeg sëñ Mor Mbaye Cissé nee na ceddo bu mës a jébbalu ci sëñ Touba mu ne yuttil ko Cheikh Ibra waaw maam Cheikh nee na ceddo maa man ci moom dara maa mu reer tëdd ak um njabootam nga reer ba rek war saw fas dugg ca dëkk ba faagaagal ñëpp jàpp góor ñi def leen i jàmm jàpp jigéen ña di ay jabari jàmbur def leen ay soxna Cheikh Rafal nee na bu ñu la ci amee maa ngi am ñoo baa ñu am sa sa wayjur nga defee ne set nga nee na juum nga sa deret moo Cheikh Ibra nee na déréet ci tilim jàpp du ko raxas julli du ko raxas ñu ne ko lu koy raxas mun a ñaqal sëñ Bamba waaw Cheikh Ibra nee na ñaq day raxas yuq raxas yax dóor a génn Cheikh Rafa ngeen ne li gën a <laughs> li gën a ñaq de sori lay bàyyi ko Cheikh xam li xew nee na ñaqal sëñ Bamba muy génn am na ci bàkkaar yoo xam ñaqal sëñ Bamba koy génn moo tax ñaq ci yëf yi la bokk de sëñ bi te ñaq mooy xitma mooy motax ni ngeen def di dajale fexé ba la ngeen di am ngeen sak lu mel ni ke seigne Touba niñ ko waxe léegi li ngeen di tëwoo fi yep ci kër gi mouride diko def at mu jot ngeen waajalal seigne bi mu ñew fi wala at ma ca top wala lu mën xew wala journée xasida yi wala programme yi ngir mouride dundu seigne Touba Cheikh ibrahim neena li leen yalla jox jox leen ko seigne Bamba ndax lo joxul seigne Bamba Cheikh ibrahim nee dana xewi to bu xewee ko ko jox du ko jël maam cheikh neena na wërsëg yi gars dajale ci banki neena wër ay sëg képp la de nit bu faato cheikh ibrahim neena ay bokkum wër ko ay jegeñaaleem ñu wax lu baax ci moom ba ñaanal ko lañ koy bàyyee ca bamil bu képp la moom ma la wax loolu de waaye maam cheikh neena lañu ñu waaj doonu ca kër ga mat naa bàyyi xel de te cheikh rafal ne lu ci jëf yónnee la ko li ngeen am doom te ngeen ko war a wala sëñ bab la ngeen fi jóge cheikh ibrahim ko wax de waaye bàyyi fi nangami milliard liggéey sëñ bam bi ne fi wóorul de waaw moo tax nañ nañ nañ nañuy doylu bu baax Cheikh Ibra nee na yuréet pëng rek <coughs> day leen ñaan wërsëgu sowum giléem la wax man nag bala maa tàggatoo danaa leen jox secret dafa leen koy baaxee dafa leen ko àddi yeey Cheikh Ibra yéen kat man yéen kat ku ku ku ku ku yor dara war na leen koy yéene ndax yoon wi nag danaa la wax leen de bëgg doo nga ciy maye dara maanaam ndax bëgg moom sëñ bi nee na wut am rek bëgg wut am ki ki bëggul mënoo koo dimbali waaye ki bëgg day aaji ndimbal ba pare te yàlla mën naa dogal ndimbal gaaw fi moom ndax daa bëgg kooku boo ko tegee ci yoon mën naa dem waaye ki bëggul mënoo ci moom dara sëñ Musaa Ka ne borom bët yu borom bët yu gumba raw boroom xel mu gumbaaroo boroom bët yu féttagul léegi nag fii ku fi ne am na lu la tax a jóg mooy loo sutur la woo daanaka ñi fi nekk àddi yaa njël rek leen fi ba àddi njël rek waaye fi ne mën naa gaaw lool waaw boo dee jox sëñ bi maa la wax loolu de bu fekkee li nga am sëñ sëñ baa ngi ciy mos mën naa gaaw lool sëñ Cheikh Fall nee na ku la man ci joxe bu ngeen xexoon sax mu duma la Cheikh Ibrahim lim am lépp mën a joxe bokk nag li ko dimbali kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Cheikh Ibrahima ne ne kenn denc junni ci poos ñu laaj nga jël téeméer joxe tana yéene woon naa junni maam Cheikh nee na yéene du fekk dara ci poos waaw nee na junni ba ngay joxe ba mu jeex nga jël yéene gàcc ci junni ba Cheikh dafa la ko wax waaye nag moom danaan fàkku moom moom nag moom nag li mu mënoon kenn mënu ko ndax man gis naa ko sëñ mu Fall tayle def ci jumaa ji nit ak yu noppam mën naa leen diw sàngam ak njabootam a ngi Touba Fall Cheikh Moussa Fall leen tayle def ci jumaa ji tayle nit ak yu noppam laa def ci jumaa ji <coughs> waxuma laa nag kër Cheikh yi nga xam ne moom yëpp da koo jaay mu genn wàll yëpp da koo tayle ji moom def ci jumaa ji loolu moom am naa ci firnde man loolu nag dafa waxoon ne bu kenn denc 1945 la sëñ Modou Moustapha Mbacké nelaw sëñ Fallou toog xalifa sëñ Fallou ne miraas naa sama bopp def ci jumaa ji ne ñëpp def ni man sëñ Modou Moustapha la nañ wut carnet teg ku nekk la ngay sasoo na nga ko wax seex yëpp toog sëñ Modou Mamoun Mbacké mu maam Seex Anta mu njëkk a sasoo 500000 jotaay ba nit ñi tiit na waaw xanaa kii daa xamul téeméeri junni nit musafal ñuul lu mu mën a jamono bañ carnet bi am ku ko joxoon ci seex yi na yow sëñ Mourou Moussa Fall sa soona jumaa ji fekk moom fi du dara sëñ Cheikh sa maam suñ ko masaan a jox ndigal du maye du leble du saraxe fekk ndigal la àgguta day ñàkk këram Cheikh Ibrahima lim def kenn fekku ci moo tax mag ñi joxoon ko cër wormaal ko lool am fuñ ko teg defar ba defar jeex defar jigen ci gëna a té te kuñ daan wax pen ndjay jóg koko mom mo yar mam rëma sey loolu ay la xamna nam démé cheikh ibrahim néna na ko suma fekkon fekkoon bambay seexal jigéen ma defal la lu reuy ndax jëf nga ko fi amna kuñ daan wax mam fatou gey mañi tok nañ ci bir keur cheikh ibrahim fall ba rosi ndawal dess ñu rësi ba noppi nak di wër cunguwaar guñu seppee ndawal li bañ noppee bañ wëree kudd cunguwaar gisunu mam cheikh dégg ñu ci cunguwaar dé fi amul mun a na xana faatu gi ma ñu ci kër gi mun a bëri soxna ya nako ma ngi ni nako, mam cheikh nako jël sa loxob nga yëpp ci mbanay sepp ndaw yoo dool do lak fi do lak fañ jëm jigen la mu jël loxom ba di seppi mbana gu jeex te diw gaangi sans mu jall ci geneen ma ngay joxat bi mam cheikh nako duma lak fi duma lak fañ jëm tafal xam nga ci dara du ma lakk du ma lakk fañ jëm te faal xam nga ci dara te man gis naa fu sëñ bi waxe ne ku ànd ak Ibra Faal waaw kay looloo mat a waxtaane kan moo ànd ak Cheikh Ibra kan moo ànd ak ku ànd ak moom du lakk waaye kan moo ànd ak Cheikh Ibra xam nga koo ci nag gis bokkoo ci mu gis boppam fi ne nii benn problème rek moo mën a indi xeex mooy doo Baay Faal koo ko wax léegi ngeen jàkkaarloo waaye Cheikh Ibra moom seppi na bu yàgg waaw Baye Cheikh Tall la ko wax diglu bu baax lii ma lay wax sëñ bi ko ne ndax nga waame Cheikh Tall mu ko waame nu muy mel mu ne ko ndox mu bëri lay doon Cheikh nee na bu jógee ci tund wa di jëm ci déeg doom rum romb ko indaale bant yu sew sewaan yeeg xottiti yeeg du ba dara buy ñëw lépp lay indaale waaye nag Cheikh Tall nee mën a faal mu ne doom ndox buy dem ndox rek la yóbbu bis ba ma ko njëkkee waxtaane làmp Fall benn waaye woo ma France na ma dégg naa la dégg gu sori sëñ bi lu cay pexe ma na ko fexee doon ndox nag ndax boo dew xeer wala wu birig bu ngeese fa bay lay bàyyi de nee na boo waamee wal jëm ci déeg bi du fa ba dara doom waaye ndox ndox buy dem ndox rek la yóbbu waaw Cheikh Ibra wax loolu ne ndox buy dem doom ndox rek la yóbbu kon boo dew kiit mbaa ngay bant bu ngisee fa la lay bàyyi Cheikh Ibra fa ko kon fexe doon ndox a gën a wóor te buñ waxé cheikh ibra fall xana xamone buñ buñ coow li mooy roy cheikh ibra waye buñ ko royé wallahi wallaay sam dara duñ fi bàyyi cheikh ibra ku ko roy dem seigne Touba wax na nit ba tay lan nga gëna bëgg tay ma defal lako koko tontu na ko mel ni Ibra Fall gis na ko seigne bi wax nako sa da nga xir way li nga am doyna xana xamone xamoon Ibra Fall daf ma rëcc fa mako sanni bu fa koon ba yow ma xam dolal suuf Cheikh Samba jaara Mbaye wax na ko Cheikh ibrahim mom raw nay maasam te de su ko jot ndax Bamba ko sempi mu raw ya rabbi nam faal motax mam Cheikh nak dal ni wax li nak man dom kon wax li nak man seigne Bamba mi ngeen di wax asaman la dom xana xamone seigne sëñ na koy deg mu tuddu seigne Touba ta xamuko ko déedéet Touba gaay deug ko xamne dang ko tuddu ci kanamu seigne ibrahim mu soppi nga tuddu ko ci kanamu seigne Saliou ay ñam génn nga tuddu ko ci kanamu sëñ seigne seigne fallu mu na ah, borom barak bi rek mais koku kuy konn kon defane xam nga ko xamoo li ngay wax Cheikh Ibra ne seigne Bamba asaman la dom xool rek ngeen ci am wax li nak man dom may souf te Cheikh Ibra lañ wara waxal ndax mam Cheikh nee na suuf mooy taatanal mu ndab souf lay tatanal dom souf moy sa ndab wax li nak man kon seigne Bamba asaman la teen xol kep ngeen ci am wax li nak man dom may souf Cheikh Ibra Fall ne waaye lu way bub nak dom xep sama kaw lu way gess bam xoot def ci sama bir waye mam Cheikh ne lu yag ci man dom ma def ko muy souf te souf ken munu ko sop muy lenen ñu ko déedéet wax leen ak man dom dan na waw laaj len bay baykat suy ñaan ku mi ñaan ma ngi ne ko xana yalla mam Cheikh na baykat suy ñaan fu mi dëkki loxom ñu ne ko asaman. ana yakaram ñu ne ko mi ngi mu def ci souf Cheikh Ibra Fall lu tax jël yakaram def souf ba waye yalla ko fulla ndax bu ko yalla jox ndax daf koy tooyal waye souf la ko yónnee Cheikh Rafal ne su ko defee suuf ndox mi gene ko njariñam na wax li nak man dom kooku lañu wara waxal motax tax nu boo gisee dara jomulunu dañu gis ku ne ci magni Cheikh Ibra defar ko defar wu ne ma xamne liñuy li laaj Cheikh Ibra ci gëna a gaaw suñ ko ko laajee mu jox nako ko na koy seen mu yor tour di ko wér da asim ne bu xamone am dimbal du du fi ne di jël temps nan lim sangam Cheikh ibrahim lay wo ci guddigi leg mu fajj aajoom xana xamono wird sax tur woy wird mu mën bawuma ben wallahi asim na mo son guddi jot nga jël sa cruise wo sangam Cheikh temir yon mos ko tey yaa ngi kurus mos ko ci guddigi gi gis bokku ci jël sa cruise nga mos wol Cheikh Rafal ab lim leg nako li yow la ci xaar ba xam xamna ko tok ne fi kanamu Cheikh ibrahim tur wam don wird sax xamna ko maam cheikh nak ges keuf kurus ga xecc ko mu dag mu ne ko bucc ngej ya yaa jommanteeg loolu ngay wo sama turu khudam lu ci waay wuta muyu la dan na ges na hehe dom di le mo won ak ci lu ko jar ma gëna gaaw melax te du ma wute ko tax la waaw kum neex man nga ko mos tey lol dal waaw lol dal kum neex man nga ko mos tey Cheikh Ibrahima Fall moom mi ngi fi ah, ma la wax lolou kooku bo bo bo nekkee ci la nga wara nekk wallaay naa sim na foo ko woo wuy si la. waaw. waaw. waaw. Mhm. waaw. ñun Baye Thierno Sall kay sëñ bi li nga wax nii Baye Thierno Sall nee damay dox ci àll bi ba mu yàgg na tëll ci mbedd dajeeg gileem mu engagé ma. gileem gi jekk-jekk na jaas sama kanam man a Cheikh Ibra Fall nee na mooy la damaa gëlëm xamatuma fu ma ne nee na waaye bu ma ximmi ko sa ëtt laay yeewoo waaye ne teg nañ ci ay fan may nuyu Cheikh Ibra ba ma yëgloo ci buntu bi mu ne ma kooku mu ne ko mën a Thierno Sall mu ne ma ak ragal gileem waaw. moo tax Cheikh Ibra fo xoolal wallaay naa mam, ne maam Cheikh du du moom mbiram bokkut ak mbir yi de moo tax faaw ñu xam ko suñ ko xamee mën a jëriñu ñun ñun suñuy maam luñ mas a def ci barke Cheikh Ibra lañ ko defee te def nañ lu ne coow li Cheikh xam nañ ko xam na jamono ci juróom-ñaari atam nee na maam Cheikh daf ko daan jël di ko taf ci dënnam ba mu nelaw mu ne ko demal tërili ko mu jox ko ndeyam ne ko demal tërili ko Baye seex nee na bi mu amee juróom-ñaari at la ma Cheikh defal tànk moo dog ci yoon xam kii ndeyam xam kii baayam xam ñaata noyyi la noyyi xam ñaata noyyi la dese xam bu faatu aji la jëm wala sawara waaw Baye Cheikh Ndaw bët di daawur gis Cheikh Ibrahima def naa ko muy gumba ak njàccaar lu mu mas a wax yàlla def amul ma dem te ñow baye mom bo dajé mom ci mbéddi fi lay faje say aajo légui ay ma dem ca kër ga déedéet loo ko laaj boko ko joxee dërëm mu ne xaliss bi bërëb sang nga ko jëlé xaliss bi ma dem da nga feebar da nga amé nangam nangam ak nangam dox bam mu mu talal nox na al alxëyre ngi ni ku am ñaar fukk tegg ben ba Aliou Ndiaye mam jaara xamna ko bax da daanañu man mi man na ko dama ko daan fréquenté daf ma daan daf ma dama daan ma naam samaam nangam samaam Cheikh Ndaw nangam samaam Cheikh Baye Aliou Ndiaye maam Diarra jàng ma jës bu ci kanamu Cheikh Baye seex Baye seex na ko xaacu koo xaacu defal na la ko muy sox ma man maa xam li mu yoroon ci lim waaw Baye Aliou di xaacu rek bu fi kenn jàng jës bu di xaacu nag <laughs> sëñ mu niiru damay bañ gars yi làqatu jël jës bu di ko xaaj bëgg a xaacu bayit yëpp de ah <laughs> ah yaa ngi dégg xaaju koo xaaj defal na ko muy soxna bàyyi ali li mu denc man xam naa ko te bàyyi seex a ko yar am na daajam yoo xam ne gis naa sax isbu tarxee yi di ko jàng mooy inam ni Abdoulaye Fakku la man Aliou Ndiaye maam Diarra mi ma lay wax nii wallaay naa sim bàyyi seex a ko yar biir kër benn doom bu góor la fi dese bàyyi seex la ko tuddee maa ngi moom ñoo def kon te kooku Seex Ibra ko defal koo mën a doon wallaay naa sim moo xam muy jigéen te am doom mbaa mu am borom kër yaangi dégg de wala mu am jafe-jafe moo xam rab wala seytaane ci saa si fi nga taxaw la ko bàyyi Cheikh di dindee àddina ñëpp xam nañ loolu moom bu dee góor moo xam mu tële amoon kii xam na li may wax tengaade bi mu daan sol bàyyi Cheikh tengaadeem bi ku mu ko dëpp doo tële mukk ci àddina wallahi naa sim du caaxaan ku mu ko mas a dëpp doo tële mukk ci àddina loolu Cheikh Ibrahima ko defal tayit amoon na lim soxna soo xam loo xam ne ku la buñ la ko waxee rek bàyyi mbay ngiraan nee na ma ma dama daan waxtaan ak moom mu ne ma Cheikh Ibra Fall ba ba ba ma guddoo bët ya muuru ba sama way juru jigéen waxee Cheikh Ibra ne ko Cheikh ndaw kat du samp kër ndax nii mu mel maam Cheikh daf na monte gis naa musóor yu bëri yu ko topp maa la wax loolu gis naa musóor yu bëri yu ko topp bay taala ndaw ne ma maa toog samaam toog Cheikh Ibra Fall toog ma dégg mu naan ko Cheikh na nga bëri looy mu da nga bëri musóor moo tax Cheikh juróom-ñett fukki soxna ak juróom dencoon na ko waaw Cheikh Ibra ko wax dadaa sar mhm, wax jadaa sar moo tax lim bay dem ko yooyu yëpp day mbir loo xam Cheikh Ibra la kenn xamul lu mu doon sañ-sañ la tudd da koo am ku mu neex jox ko joxoon na ko lool lu mu mën a doon ci àddina am na ko Baye Ndiaga Diop mi ba ma ko laajee bu fi leen ko am na xaritam bu ñuy wax moo ma nettali na ma àndee moom ñuy ngoro ji fu mu dem ñu dàq ko bis ñu romb Baye Cheikh mu tàllal ndox na fukk alxëyri ngi ni ku am ñaar fukk teggi benn nee na ma ci saasi la Codé dugal ñaar fukkam waaye foo dajeeg moom mën a la fi ne sonn naa sonn soo wax ñu jox leen ko Codé yooyu yooyu yëpp di ay yoo xamante ni bii secret ay wax yoo xam ne Cheikh Ibra ko ko defal muy ay mbir mu ciy faj ku ne di di di faj lu ne lu ne lu nit taxaw fi kanamam def ko boo ñëwee mu wax la ko lu nar a xew fi yow mu xam te Cheikh Ibra ko yar te du gis loolu mbir la loo loo loo loola mooy Cheikh Ibra Fall nga xam ne baatin la def ci mag ñi ba mag ñi luñ soxla ci àdduna buñ tàllalee yàlla def yàlla sans borom def ko Baye Mor Ndiaye tombu del nee na su may jàng maraaxib ba àgg salli wa sallimana yaa fataaw ala lasi su ma taxul miftaaw wa ali wa sahbi wa turi maa situ fii daane doon a dara ni neen lu ma laaj sans borom mu def ko ci saasi loolu defal defal naa leen ko addiyee Cheikh Ibra daa mel ne nag secret yaa ngi génn de waa tàngoor ko sabab xam naa yooyu bur woon a génn waaye tàngoor tax Ah, ah waaw sama maam bi jur sama ndey moo ma ne si laat la digg mu ne ci làmmiñam dama defe ne murit daal lum ñàkk-ñàkk jot mos balaa xëy jàng wakkaa naqat ne ko koy jàng ren ba déwén daal te amoo génn yokkute ci yow dangaa yem ci waakaa nag képp tàggoo ca xaqan ja <clears throat> te man xam naa loolu nag moom duñ ko mën a wax ci jotaay waaye maha balay wa am amradi jooju wabiri daa tan xaaruli jooju Baye Cheikh la ko la ci Cheikh Ibra Fall joxoon ay mbir nee na ko bu nit ñi xamoon li ne ci biir biir woowu woowu wopp dootu am soxla yëpp ay faju waaye nag am na ci loo xam kenn du ko wax ci pénc xam nga ndax waxtaani biir néeg la dee loolu buntu waa dee loolu buntu loolu kenn du ko wax ci pénc waaye daal lu mën a xew mooy jàpp nañ foofu daal bu ñu fa jàppee itam dëgër liñ bëgg mën nañ koo am te dana dajeeg la sëriñ bi bëgg man nag am naa ak cant cant xool gu ma leen di sant ndax Cheikh Ibra Fall sunu alal la ñun ñëpp ñoo ko bokk te fi la cër bii ngeen ko sédd tey sëñ Moussa Mbar dafa waxoon lu am solo dafa ne kenn ci borom xam-xam yi day wax ne booy sédd mbooloo di tamit ay cër nga xam ne bu tayee xam nga wax ngeen euh, xëy na màggal gu xew dinañ ko def fii daf ko waxee yu ci bëri ci màggal yi xew dafa wax ne booy sédd mbooloo da ngay tambali ci cieur ba daj ñep waaw xam nga soo noppee boy booy sédd la wat ko amul day def da ngay dolli motax boy sedd te jiital Cheikh ibrahim Fall sedd nga yoonu mourid kep ndax Cheikh ci cërum ñep la mam Cheikh ñep ko bok mala wax lol de seigne cierno Mbacke gelongal neena ma man ni ma bëgg Cheikh Ibra du mbëggeel guma tay tey ni ma bëgg seigne Touba la ko bëgg hmm? Cheikh kon Cheikh Ibra ci cërum ñep la motax ku ne am nga ci wal motax Baye Fall seigne Fall non ku ko lolu war nga ci war nga ci wutub xarit Baye Fall kon lolu taw sunu borom la ñoom ñu jaglel tay li ci dess nak moy liñ seigne Touba bëgg fi ci dëkk bi kenn ku ne jappal na ya ko wara def dara ci Touba waaw dara jiitu ko ci ndax sëñ bee moom àddina sëñ bee moom àllaaxira sëñ bee moom lépp léegi nag boo ko fàgguloo kër comme nii te wër na ma ne fii ni ma ko gisee xamaguma li xew de waaye li ma gëm te jàpp ko mooy seen bët yëgg na fii moom njort naa loolu de fii moom njort naa ne fi ne nii seen bët jéggi na ko moom xaw ma li ci seeni xel waaye lu ma gëm mooy fi ne nii moom bu ngeen sañon am fu gëna yaatu fi ah akay jeex ah akay de nga neena ñaari at yëpp ñu ngi dajale ke sax ngir wut jënd ke señ Touba kër gi yaatu kon te bo xolé sax ni mu démé xamna ni naa ne ñëpp ñëwuñu mooy dana bëri lool bu xewé ñortu mëna da ngeen ko mëna woté fi fii màggal Touba fi nga koy défé akay ñortu akay ah, jeex waaw ma ngoog kon poroxaan xaju fi kasaroy xaju fi sëñ Mamoor xaju fi daayira rek moo fi xaj te daayira sax dana dem ba du fi xaj ndax murit dañuy yokk waaw waaw murit yi moom waaw loolu leen yàlla bind murit moom day yokk xanaa xamoon ne ñëpp ay murit lan sëñ arab yi ñas moom ko waxoon murit mooy ku nam a yegg ci yàlla ku ne murit nga di kuy wut yàlla ku ne murit nga murit kay yom jeex na ñi jëm ci yàlla ñëpp ay murit lan moo tax Cheikh Ibra Fall ne lu yàlla bind murit ci gën waaw ñëpp murit lan maa la wax loolu de ku xam murit lan la doo ko araamale sa bopp du ci génn sa bopp bàyyi siini sekk la ko wax <laughs> moo tax colin wi dafa am solo mhm. waaw colin wi am na solo lool nuru murit Cheikh Ibra Fall nee na bay Sini sek bay mudukan Kane Baye Mourtada nee na dañoo ak saamam Cheikh di dox am ko ko doxale ci gannaaw ko dox ci gannaawam Cheikh Rafal ko no he he dom no sant mu sek ko sek mu ko ko Sini mu ko Sini sek mu ko waaw mu ne ko hé murit nga mu ko waaw fal murit la de Cheikh Rafal <laughs> he he dom ah nuru nga murit lol dom ah mané nuru nga murit de nako ko xanaa yomal xiyaam nuru gi murit la seen bamba njëkk fay ëlëk Eh, sey mi deglu len Cheikh Ibra du nit de xolal neena nuru gu murid de sëñ Bamba njëkk fay eul waaw nuru gu murid waaw motax nuru murid amna solo de sëñ ha ah baram me mi xam nga boko ko baylatam be mom do doo warante <laughs> na murit la moom xoolal bi jël kala gi tek boko ko xamna murid la Cheikh Rafal neena nuru gu nuru gu murid la sëñ Bamba njëkk fay eul daan na ko xeexee doom nuroo nga murit lool daana nikk ci loxoom daal di ferenkulaayu daan na doom xanaa fii ma jublu mooy penku bi ñu ne ko waaw seerafaal ne waat naa ca kaaba ga lu yàlla bind murta ci gën mhm. Cheikh Ibra ko wax de waaw moo tax ñëpp ay murit lan ku bëgg lu baax rek murit la mhm. kon ak sant la ak sant la su ko defee rek ñu góor góorlu kon ci kër Serigne Touba yi bokk ci ñi ciy jëf kenn ku ne ci nun tey boo ko doole matee war naa mën a jël xaalisu boppam du laaj kenn fàggul sëñ Touba kër sëñ bi li ci jëndal sëñ Touba kër ci àddina nga ne kër gi maa ko fàggul sëñ Touba loolu sëñ bi loolu loolu doon ndaw de kër gi maa ko jëndal sëñ Touba fii nga xam ne fi lañ ne woon du fi sëñ Tuubaa ne leen woon bu yàgg dana leen fekk si ba ca seen réew ma wane fa yàlla mooy lii ñu ne woon du fi lu ne ñu daj ko lu ne mu daj ko ca ndar lu ne juróom ñetti at yu manqué ñetti weer kenn xamut daanaka fu sëriñ bi toll ñuy xas murid yi di leen ree ngir seen sëriñ ba sànq nañ ko lu ne ñu yekk ko Cheikh Ibra Fall am na kilifa gu baax koo xam sëtu sëñ la nee na li ma gën a neex ci Cheikh Ibra Fall nee na fital sax gënal nañ ko ngir sëñ Touba fital sax gënal nañ ko Cheikh Ibra ngir sëñ Touba nee na moom looloo ko tax a gën a bëgg Cheikh Ibra Fall mooy Cheikh Ibra tiimale nañ ko fital ngir sëñ Touba waaw mu ne doom waaj leen doom waaj leen di ngeen dégg ngeen lu ne dégg naa ko lu ne ko dégg ëllëg daal di wax ne lu di Ibra Fall wasin na bii dégg naa ko te bu góor wasin doom nu waxal ma ko moo tax kon képp koo xam ne yaa ngi ci réew mii di wuyu am murit war ngaa fexe ba kër Sëñ gii ñu bëgg fii di ko wut sa dara du ko fekk te bala ngaa xam sëñ bi mooy kan dëgg-dëgg nga miraas sa bopp ngir sëñ Tuubaa ba boobaa ngay xam kan mooy sëriñ bi boo sa bopp ngir sëñ Tuubaa la maanaam maanaam futteeku ngir sëñ Tuubaa ngay xam kan mooy sëriñ bi Cheikh Ibra Fall ne xeexee doom sëñ Bamba boo ko bëggee tamit dëgg ci yow da nga ko jox sa lépp ba mu jeex doom loolu de sa dara daana moom nag doom bu la joxee lenn nga gën ko ñëpp lennam képp la lay jox nga gëné ko ñëpp kon mirasal sa bop ngir señ bi te señ bi ku am fula la señ mun taxanu ko xol foko toll mu toll la fa nañ ci bayyi xel bu baaxa baax buñ ci fo rek jaayante ci liñ bëgg mën naa am ndax murit luñ bëgg te amuñu ko ci ñom la waye xam ngeen mbolo mi fi tew luñ bëgg fi man nañ ko am te woor na ma ne li ñëwut ëpp kon war nañu am war nañu def liñ bëgg lepp lepp lepp war na gën fi nak kër sëñ Tuubaa yi limay liggé ci àddina ci dafa am solo man démb rek biñ nekké Barcelone ñu ngi ñuy ci kër gogou mouride yi fofu mais daf dañu dafa muju man sama yaram di daw ndax dañ ma fa nettali xes lu ma marqué nee nañ maanaam ñoo xam ne dañoo dëkkoon ci wetu kër sëñ Tuubaa gi te sax duñu sax ay murit waaye jullit lañ daal ñu dëkk foofu ñu xëy xëy xëy waa ji nee ki nga xam ni kenn la ci jëwriñu kër gi neen dafaa jaar rek gis taxaw di leen génn kër gi na mu jaar fa laaj lu mu doon ñu ne ko ñii dañoo fayut location dañuy génn seen bagage yëpp ci biti ci laa xame ne yu am solo la murit def fii ci biti te lu bari am na ñoo xam ump na leen Sénégal maanaam compte que sëñ Touba gi ci boppam moom lañ garantir kër gi ngir gars yi mën a dëkk julli ñu mën faa dëkk te duñu sax ay murit barke sëñ Touba démb lañ ñu koy nettali compte que sëñ Touba gi lañ jël ñoom garanté ko maanaam kër gi seen locataire nga xam ne ñoom ñoo leen ko fayal ñoom loolu mooy liggéeyal yàlla loolu la sëñ Touba bëgg te bala nga koy xam ëllëg jot Cheikh Ibra nee na ku ñu tëkkaleeg sëñ Touba siraat moo gàccew ci kaw jaxannama waaye saam si nee na bu siraat gàccee ci kaw jaxannama safara yi fi tàng wax ji doon benn Cheikh Ibra Fall ko nee na xaaru gaa yi fii ëllëg la leen di xaar coow li mën naa bëri fii waaye nee na bu yomal xiyaamee ba siraat gàcce Cheikh Ibra Fall ne wax ji rek doon benn wax ji doon benn ndax Masamba Ndiaye wax ki na ko waaw xanaa ab liir bu nekkee ci biirum ndeyam foofa di am réewum mu ne ko waaw Fall mu ne ko doom xanaa bu génnee àdduna mu gën a yaatu fi moom mu ne ko mu ne ko ku ñuy tëddëkkale tëkkaleeg sëñ bamba ni àdduna ëpp bii ni la sëñ bamba ëppi moo tax noo ngi sant bu baax bañ yàlla boole Cheikh Ibra Fall nga xam ne day yokk sunu pëstéef ak suñu pas-pas ci suñu jaayante sëñ Tuubaa noo ngi sant bu baax ñaan yàlla sama borom doon leen kàttan ak wér ngir top sen chaîne Jazboul Mourid demal Google tapez Jazboul Mourid ben ben émission mu YouTube ci page bi nga abonné te activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo sen chaîne Jazboul Mourid di ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jezbul Mourid mi ngi ci war wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall